ما شاء الله صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم ونحن على هذا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دفع ملني آه، j'espère que amul bruit euh, sama dragon bi mo ñëwaat ndax ñu ngi waat si tàngaay donc euh, j'espère que ya ngeen dégg bu baax maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar maa ngi gis euh, et eh, pap Moussa Sow pap Moussa sang ba léegi maa ngi xool sa euh, message yi donc macha allah c'est très important euh, maa ngi gis ci commentaire yi Abu Wele waaw sama sama grand sama xarit sama sëriñ waaw moom c'est une chance pour ce pays. une chance pour ce pays wax dëgg yàlla Moussa Mbengue Sénégal coiffure maa ngi leen di nuyu Kempes ah Kempes ñu lay ziar bu baax a baax maa ngi gis euh, ñoom Ousmane Dia Dos et Pape Ibrahima Lo amin amin wala kabil misli ya oustaz donc euh, Ibrahima Ba sa question bi daf ma jàppale <laughs> je préfère bañ ci tontu <laughs> je reste deviner gars xool donc euh, Abdoulaye Ba. Euh, Babacar Sadikh ñu ngi leen di ziar bu baax eh, Babacar Sadikh am mooy informateur corona waaw euh, mooy journaliste corona donc euh, macha allah Madieng Diawo Ali Diop donc maa ngi ziar ñëpp Fama Barhama Fama yow nga ne doo nelaw donc macha allah ñu ngi am mbégte loolu ci dellu si waat ci benn jotaay Marifa Marifa ñu ngi lay ziar bu baax et eh, Abdoul Ndiadé ah, ça c'est l'américain ah, américain yow moom après naa leen tudd yéen yéen foog mu wax ak yéen après. Mouhamadou Moustapha Sall waaw euh, ñu ngi lay ziar bu baax yow yaa ma fàttali live bi donc euh, ba nga euh, commenté si si si page Facebook bi dafa ma def notification ma ne i si laa soog a xool heure bi gis na fi deux heures passé na maa ngi woon ci ay travaux yu ma nekk di yeggali temps yëpp sans prendre du temps ma def temps parce que je suis pas très disponible mais maa ngi am te loolu dellu si waat di leen nuyu di ziar ñëpp di njort ni ñëpp ngi si jàmm alhamdulilah macha allah. Euh, waroon ñëw tey ñu am benn séq benn tomb waxtaan bi nga xam ne jàpp naa ni sincèrement dafa dafa urgent waaw muy wàllu euh, éducation wala book sax je parler d' instruction wala boog de formation wala d' ndax wax dëgg yàlla euh, de l' école sénégalaise gëw ma sax ni école sénégalaise amagum na naa si ñëw léegi si biir waxtaan bi karanu maa ngi lay ziar bu baax a baax ak Chérif Diop ah, sama gars yi waa daal fi man ñu ngi fi de ngeen temps am lex ba d'accord du ma wax dara bàyyi ma noppi donc euh, macha allah donc ñuy xool ensemble euh, jàngat déjà euh, le problème dinaa jéem a xool sax le problème avec l' école dans sa globalité l' école dans le monde entier la crise de l' école dans le monde avant may ñëw si la crise de l' école au Sénégal donc ndax école bi moom elle est presque inexistante sama jàpp ma ni am na école wax dëgg yàlla gëm na ñu ko mën a tëj jéem a toog xoolee ni ñu koy waxtaanee incha allah. alaaji is donde daa is maa ngi lay ziar yow moom dama la namm namm spécial donc euh, macha allah ziaral ma gan gi euh, imam waaw ziar ma ko bu baax a baax Mamadou Fall ñu ngi leen delloo ziar bu wér a wér donc euh, baax na d'abord ñu xool fan lañ ci toll ñu fal lañ toll actuellement ci àdduna bi ndax ma dëgg yàlla man jàpp naa ne il y a de grands problèmes dans le monde entier s'agissant de l'école mais il y a des problèmes plus graves chez Euh, ba tax wax on peut on peut rien faire école en tout cas mënul régler aucun problème c'est bien de parler de développement c'est bien de parler d'émergence c'est bien de parler de responsabilité de de souveraineté waaye euh, lii yëpp dafa am lu mu àndal li mu àndal euh, à la base la commande la formation fa la ci donc lii moom wax dëgg yàlla problème la problème la moo tax ma gisoon daal baax nañu waxtaanee ko rabbi bon balaa may dugg ci ci le cœur de problème donc euh, Sayer Diop maa ngi lay ziar bu baax Mouhamed Ndiaye waaye déeta waa incha allah naa si def waxtaan incha allah yàggatul donc euh, yàggatul Idriss Lo euh, ñu ngi delloo ziar El Bachir ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaw l'école sénégalaise moom dafa échoué lamentablement elle, n'est pas encore créée, mais je vais parler de l'école française du Sénégal. L'école de Jules Ferry au Sénégal. Elle a échoué lamentablement. École de bien euh, elle forme euh, des gens qui sont, euh, je vais dire, qui sont complexés. Elle forme majoritairement, je ne parle pas de tout le monde, mais elle forme majoritairement des gens qui n'ont aucun amour pour leur pays. Elle forme les plus grands voleurs de la République les plus grands traîtres de la République école est moo donc euh, école bi wax dëgg euh, tous les mots, en tout cas de notre pays ont un rapport avec cette école là Notre école bi mun ñu analyser euh, diagnostiquer ko saytu ko dans son fond dans son fort intérieur pour dire a xool refonder wala réformer dans un premier temps avant de refonder Mais sinon, Inch'Allah, en détail donc banaa boobu nous, je vais rek benn benn euh, waxtaan benn leeral par rapport ak vaccin yi nga xam ne jamono bi instant yi moo moo xew euh, di si ñaanal yàlla dèjà ñi nga xam ne ñu ngi am ay jafe-jafe ñi nga ñoo tawat euh, di si jaale ñi nga xam ne tamit dañoo am ay ay jafe-jafe donc macha allah di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix ba lépp li nga xam ne namm nañ ko. ci aduna bi yalla yalla muccel muccal ci muccal si jullit bi muccal nit ñep ñëpp ensemble inshallah allah rabbi euh, la manipulation continue ragal na ni dem ba ay euh, variant omega variant epsilon variant delta euh, variant phi euh, variant variant daal ragal dinañ ñëw et préparez-vous en tout cas à beaucoup plus de manipulation que les am actuellement yalla yalla yàlla musal donc euh, je réitère nag toujours ne nañu taxaw temm góorgóorlu euh, bañ a sàgganee suñu yaram travailler sur nos systèmes immunitaires nañ ci gën a travailler gën ko dëgëral bañ a nangu ñuy stressé ak ñuy xuuxal donc euh, ñu bañ ko nangu jël suñu ay matukaay pour bañ a dem jëri feebar bi wala boog di jàllale chaîne feebar bi donc ñaari wax dëgg yàlla nañ ci góor góor bu baax a baax donc nañ ci góor bu baax incha allah. yàlla na yàlla defal saafara defal ñu sutura inshallah allah rabbi euh, c'est extraordinaire euh, quand on parle aujourd'hui de la maladie c'est extraordinaire ñu koy waxtaanee xam naa loolu am beneen waxtan spécialement euh, pour loolu en tout cas un plan maanaam un modèle aujourd'hui le modèle libéral actuel décadent modèle bi actuellement mu ngi si mu ngi si ngandi difficulté dëkk yi ils vont en tenir le problème Covid man ragal naa ne sax leg ba 2025 euh, au début dama yaakaar une question de 6 mois Là. après ils vont ils vont ils vont ils vont laisser tomber mais wax dëgg yàlla fi mel y a beaucoup d'autres choses si biir yoo ne ñun ñëpp xamuñu ko wax dëgg yàlla waaye incha allah su yeggee dañ euh, ko xami ji yàlla ñu xamal ci barke Mawlana donc avant de dugg suñu biir euh, cœur du du débat ñu fàttali da fàttali fa baax nous sommes dans un monde bi nga il est marqué par trois grands phénomènes que nous ne ignorer euh, quand on va analyser après l'école les structures de l'école ak la la première euh, nous sommes dans un monde bien où la croissance démographique n'est-ce pas la croissance démographique elle est en train euh, de subir une fin de croissance Nous commencé donc il y a implications sur le renouvellement de la population mondiale amna le lu de bari lu ji comme incidence wala comme conséquence euh, dans le monde actuel ni ñu ko xamé ni dans la population mondiale actuelle dans la pyramide des âges extra la structure des âges et euh ñaarel ba euh, mu am aujourd'hui ben ben déclin day ñen yenn ressources yi xam des ressources yi aujourd'hui ñu koy dundé ci kaw suuf ressources yi ni elles sont elles ne sont pas illimitées ressources yi dafa jeex n'est-ce pas donc nous sommes en fin de cycle tamit de renouvellement de beaucoup de soucis et que l'humanité devra inventer euh, réfléchir sur des alternatives euh, à ces ressources-là pour continuer à pérenniser le genre humain maanaam gën a tamit amna implications yu mu am quotidien nous dundé dundee naka ñu nous yéene dundee naka ñu nar continuer dundé ñettel ba euh, muy yenn enjeux yi ange ne enjeu àdduna bi la mais ce sont des anges yi xam ne euh, ça touche le monde entier n'est-ce pas le monde entier te benn dëkk mënu ko résoudre seul maanaam il nous faut benn coopération euh, ci dëkk yi pour mën a taxaw jaamarloog yenn jafé jafé. yi nak, nag loolu tekkiwul ñu nekk dans le mondialisme bi nga euh, projet saay-saay yi bëgg ilif àdduna la loolu xam naa ne si ñaar incha allah gën ko yaatal. donc euh, Abdou Thioune Abdou maa ngi lay ziar ba karamu bon man la vaccination sama position sur la vaccination elle est claire ah wax deug yalla elle n'a pas varié elle ne variera pas donc euh, vacciné wu ma bugguma vacciné wu euh suma jogué vacciné wu ci 2021 bi c'est parce que xanaa sama xel bi dafa mujjé dem nañ japp ni kon dofna donc donc euh, vaccination bi unique solution bu ñu am devant cette maladie là donc maladie bi ni liñ ci wax bari na lol waaye am na ay traitements yoo xam ne ñu ngi faj feebar bi des traitements yoo xam ne ay antiviraux ay traitements yoo xam ne ay corticoïdes ay traitements yoo xam ne des anticorps monoclonaux y a beaucoup de traitements yoo xam ne qui ont fait leur preuve dans le monde entier euh, vraiment jarul si tudd ñëpp su ma si tuddee hydroxychloroquine azithromycine rek benn protocole bi nga xam ne Sénégal ñu koy jëfandikoo war na tax nit yi mën a comprendre ni loo 95 pour cent jot feebar bi dañuy wér bu leen traité donc li vraiment nek ñu situation ben feebar bi xamé amul lu ko mën a ci àdduna bo war a ñëpp war a tiit noo nekk situation boobu sincèrement euh vaccin nak euh, bi xamé ne la téré ga nga feebaraat mun laa tere dee euh, mun laa nar a andil ay jafé jafé dégg na sax ñu wax na non vaccin moy tax do am cas grave c'est fou le phénomène ADD j'en avais parlé ici n'est-ce pas euh, ci ñi xam ñen ñi xam ne ils ont des anticorps non neutralisants et que sur les piqûre fer bi bu ñu nee dal leen sax si ñoom la nar a gën a dangereux ki nga xam c'est un fait je parle pas aussi des covid long covid long yi fii Sénégal on en parle pas ay covid yi nga xam ne du wér ay deux ans ak moom am tous les symptômes te fekk feebaratoo je parle pas aussi des des asymptomatiques ñun ñi nga xam ne wax dëgg yàlla feebar lañu ba te yëguñu ba dem bay maye deret temps yi rek maa ngi koy sank rek maa ngi tan sama ben xarit ndeysaan bi nga xamna ne ngi nekk ci live bi soxna Adja ndeysaan mu ngi may wax benn benn sëram bi nga xam ne dafa dem defi analyse ñu yaakaar ni dafa vacciné parce que ñoo gis samay anticorps Covid te mu fàttalikul fu mu feebaree donc y' a beaucoup de xam ne wax dëgg yàlla jamono bi ñu toll adduna bi xamaguñu amaguñu recul ba mën a xam feebar bi carrément feebar bi daal ñu ngi ñu ngi ñu ngi làmbaatu ñu ngi làmbaatu jamonoy làmbaatu nag wax dëgg yàlla si jëm a fajaate euh, erreur la erreur la wax dëgg yàlla erreur la donc aujourd'hui wax dëgg yàlla euh, bëri na daal li xam ne ñu ngi koy wax euh, variant yi muy gën a bëri ben virus bu mutagène bu am ay variants yu bari bari man dama xamul vaccin bu ñuy vacciné ci ci ban variant ci variant lay réglé n'est-ce pas donc il y a beaucoup de choses yi xam sincèrement amul euh, vaccination bi elle n'est pas sérieuse elle n'est pas sincère surtout fii Sénégal donc surtout fii Sénégal nga xam euh, Sénégal moom objectif premier am moo nekkoon 20 de la population 20 pour cent te waxul sax naka lay amee 20 ndax ñaari INSEAD ñaari may la amagum benn Chine bu ko may ak euh, initiative COVAX bu ñu ko may Sénégal décliné wul lu leer naka la nar a jëndee ak fan la koy jëndee et 20 pour cent ñoo waxoon ne dañ koy vacciner les personnes yoo xam ne à comorbidité mag ñi màgget ñi personnel médical bi et cetera aujourd'hui loolu nekku sax di am am na leen lu nekk di am aujourd'hui donc euh, suñu demee nag ba ay entreprise yu mel ni Senelec di verser dans la cournerie

ump nañu am na lu ci xam nag par rapport ak euh, nouvel ordre mondial lu muy doxee xamuñ ci lépp waaye yàlla dina leeral lépp incha allah waaw ndax alxuraan nee na gars yi ñu ngi fexe di pexe waaye yàlla tamit mu ngi pexe pexem te yàlla wax dëgg yàlla yàlla moo moom pexem rek ay am ndam donc lépp ñu nam pour nasaxal yàlla na yàlla mel ko seeni kaw incha allah rabbi donc euh, man vaccin yi gisuma seen utilité aujourd'hui donc euh, yàlla na si yàlla musal ma ngi wax léegi ci défi yi xamné xam ne sont les premiers défis yi xamné xam ñu analyser lépp aduna bi mo xam éducation la mo xam santé la euh mo xam recherche la ak lu mu mënti doon euh, ñu tok di analyser aduna bi sans bayyi xel euh ces réalités la muy benn waye ñaar aujourd'hui suy wax éducation il faut tamit ñu ñu replacer aduna bi su 21e siècle bi ñu nekk le 21e siècle actuel bi ñu nekk les défis du monde. Euh, euh à Aujourd'hui, ce sont les anges du monde. Et que si nous formons les enfants, les enfants devraient être formés, pas si bien au monde du 19e siècle, ou le monde du 18e siècle, ou le monde du 20e siècle, mais nous les former sur un monde du 21e, pour aller 22e siècle, pour jouer sur le partition. maanaam waruñu former ko ay xale yoo xam ne dañuy taxaw euh, di xool di xool àdduna bi nekk ay tàccukat tey dama koy xool rek di ko waxtaan ak samay xarit tey di ñuy xool benn tournoi jeu olympique ma ne ko man leen ndeysaan olympiade yi am na olympique international maanaam am na ay jeu olympique de physique ak de mathématique ci adduna bi maanaam olympiade internationale de physique on n'en parle jamais dans ce pays pourtant lii ay dëkk yu bëri ci adduna bi ñu dañ koy waajal di fa yóbbu si ay xale jéem a foofu ma xool olympique ci sport bi sax gisuma benn Sénégal gisuma benn noir sax en fait gis gars yi di waxte ay France ak ay Japon daan gis athlétisme beeg judo beeg et cetera ma ne ndeysaan ñun Afrique dafa mel ni ñun bokkuñ ci àdduna bi daa ni ñun daal ay tàccukat lañu wala ay spectateur ñu toog ci gradin yi di seetaan waa àdduna bi àdduna bi dafa mel ni diggante Asie Europe ak Amérique lay la ñuy doxal maanaam dafa mel ni àdduna bi fa la tey euh, et loolu nag wax dëgg yàlla ñun ñoo ko war ndax li yàlla jox ci jumtukaay yi tubaab yeeg asiatique yeeg américain yi euh, ñun jox nañu jumtukaay yu ko raw euh, loolu naa si ñëw gën ko leeral incha allah ba tax ñun kon waruñu nekk ndaare te waruñu des ginnaaw donc enjeux yi kon tey jii euh, su ma ko doon résumé damay wax les enjeux tournent autour aujourd'hui autour de l'exobiologie et de la gravitation quantique maanaam li ay matière la xamné euh nit yaa ci xalat ay xalé ñu ci commence tagat ay xalé ndaw parce que xalé buñ ko tagaté si dara rek moy mag mëna relever ay défis yu nekk ci biir loolu waaye xale bi xam ne dafa dañ ko nëbb sax enjeu xamul sax la moo xew kooku bu demee ba màgg ba dee jot du taxaw wax dëgg yàlla du ci def dara loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax euh, mission école euh, préparer un citoyen capable de s'intégrer et de jouer sa partition dans le monde de demain ci la bokk n'est-ce pas ci la bokk donc on parle de l'exploration spatiale euh, adduna bi instant ñu ngi si dans recherche spatiale bu poussée bi xam ne li les bases réelles bases yi elles sont dans la physique et dans les mathématiques n'est-ce pas euh, ñu ngi wax ci convergence NBIC Ça, c'est est NBIC convergence on veut parler de quatre matières quatre domaines Les domaines aujourd'hui ils sont dañoo nekk ay domaines yoo wax dëgg incontournable on parle des des nanotechnologies moi N B pour la biologie I bi pour l'informatique C pour les sciences cognitives ndax quatre yi suñu leen dajalee rek am na ay mbir yu muy jur ak ay xeetu xam-xam qui xam moom lay te lii wax dëgg yàlla ñun war nañ ci yeewu war nañ ci xool ñu ci war a tàggatee suñu ay ndaw euh, ñetteel bi on parle de l'alimentation de demain maanaam lan mooy lekk suba ndax aujourd'hui euh, bëri na li nga xam ne mu ngi am ci àdduna bi ñu ngi xool wàllu protéines yi ñu ngi xool wàllu lekk yi lekk yi tant qu'il y a une croissance de la population Euh, tant qu'il y a plus de population ñi gën a jël ay suuf di ko dëkkee di gën a wàññi les terres arables et cetera les terres agricoles et cetera dina wàññi lekku àdduna bi lii moo tax saay-saay yu bëri yi nga xam ne ñoom la ñuy woowee eugénistes yi euh, nga xam ne ñiy doxal adduna bi jamono bi ñu si bëri ci la bokk euh, ñii moo tax ñoom ñu tiit ci accroissement wala bokk ci croissance population bi di ko xeex di wax naan jur gi baaxul na gaay bàyyi jur et président Macky Sall bii ci booyu ñooñu la bokk ndax moom it moom it ci biir euh, plan sax mu ngi wax ne jur gi dañ ko war a wàññi Sénégal donc euh, du xaatam nag waaye ñëpp la tous les les ñu ce qu'on appelle les maîtres du monde ñoom Bill Gates yi sañu bokk n'est-ce pas ñoom Warren Buffett euh, tout le monde ñi ñëpp c'est des eugénistes c'est des transhumanistes ñaari courant yi naa si ñaar après euh, ñoom la la ñu namm ban xaat la ñu amal àdduna waaye ñoom gis nañ wax dëgg yàlla war nañ commencé xalaat suba lekk suba yi yan lekk la war a nekk ndax ñëpp li ñu mën a lekkandoo ba suuf bu dee nit yaa ngi ko ne di jur ak di màgg donc donc l'alimentation euh, euh, alimentation de boobu kon ñoom OGM les sciences, science avons la science di jëfëndiko naka la science di dimbalee doomu aadama pour mën a lekk ba suuf donc avec les organismes génétiquement modifiés Nous naa signé ñëwaat parce que le bari fi ñuy wax comme vaccin doit ay vaccin en réalité c'est des thérapies géniques et dina am incidence le génome ak sur euh, suñu identité biologique Alors, bien, débat nous naa aujourd'hui Angers, est tamit mu autour des villes intelligentes pas les villes intelligentes intelligente euh, la base, c'est la connexion, c'est l'Internet, l'intelligence distribuée, la, très haute connexion, la 5G, la 6G, éventuellement la 7G. Donc aujourd'hui, New York, City, ville intelligente. New York, c'est ce qu'on appelle les cobots, n'est-ce pas Les cobots, on les, les, les, les, collaborateurs, des robots collaboratifs, robots qui sont des assistants d'hommes Adam. Robots qui sont parce que ils sont des nous les former dans la programmation

amoindrir naka la la intelligence boobu maanaam lépp luy connexion ko yi véhicule intelligent yi ville connectée yi nakal la nar a utilité doomu adama dans la cité ndax du soxla légui di yu bëri pour ma def ay mbir yu bëri mang koy xol euh ci ay métier yi xam ne xam naa naa si ñëw biir waxtaan bi sax yenn métier yu bëri yoo xam ñu ngi ciy sonn ba tay di def budget bu ngand di ci former ay xalé waye japp mo ni sax wala ñu cee sonn di former xale ndax métier yi ils font ils sont appelés à disparaître la, civilisation humaine l'avancée technologique et scientifique euh, dina dina métier yu métier du euh, dans ce qu'on appelle la big data n'est-ce pas l'ère des super grandes données Nous sommes actuellement en 2021 Nous 2012 wala 2012, 2013 2012 sax ak ah, ñëwu Macky Sall en 2012 à 2021 bi ci 9 ans adduna bi liñu liñu produire ci ay données manam ci ay données manam ce qu'on appelle en data n'est-ce pas euh, adduna bi suñu dajalé euh, judd yon ci yalla instant manam en l'an 0 ba 2012 li ñu produire matu en 9 ans on a produit plus de données que li adduna bi produire yoon yëpp diggante judd yoon ci yalla instant ba année 2000 donc euh, ces données là ak sen utilisation sen stockage sen analyse sen exploitation ak sen décision yoo war a jël si données yooyu ak ni mo war dimbalé la connaissance doomu aadama yi dañu wara xamé doomu aadama yi ba war si mën tabax ay algorithme mën ci out benn réalité ay algorithme prédictifs sax algorithme yoo pour prédire la euh, war si def ay régression euh, war si def beaucoup de choses naa si ñëwaat léegi euh, ci algo yi euh li enjeu yu nganda ngand la nga xam métier yu bëri won na ubbeeku ci lolu té instant yi wax dëgg yàlla dafa mel ni dañoo xamul sax la mo xew ci wàllu googu euh, yamul ci big data boobu la la donnée la big data elle appelle beaucoup d'autres choses elle appelle la data warehousing data mining donc il y a beaucoup d'autres métiers qui autour des data les data euh, je parle même de data driven data driven économie une économie basée sur les données l'économie du numérique euh, l'économie du savoir effectivement Madiang Diaw mu ngi wax AI AI intelligence artificielle euh, ak ay implication parce que si on ne parle pas d'éducation aujourd'hui sans wax ci wàllu intelligence donc il euh, euh, y mais big data de dafa indiwaale benn ay réalité réalité la réalité augmentée la réalité virtuelle la réalité inclusive ak les plus mu comme ay savoir et ay méthodes d'apprentissage on ne peut ñu ko ignorer quand on parle de de l'élève bu jouer un rôle dans le 21e siècle à moins ñuy former un élève bi mais xam ne ku administration élève e siècle Parce suis école actuellement école e siècle école bi tant que réforme ñu ko changé ko mun jouer benn rôle ci àdduna bi en tout cas lépp lu ñuy faut. ci ko développement dañuy foo dañuy sera impossible mënu nekk. Euh, vingt et e siècle c'est un siècle d'exode démographique C'est des enjeux autour de l'eau d'or, des enjeux autour de de de réchauffement climatique des enjeux yoo c'est des enjeux mondiaux yoo xam ne benn dëkk mënu ko régler seul donc li l'école de demain kon l'école actuelle war na taxaw xam bu baax baax lan moy la collaboration et la coopération dafa nekk ay valeurs de l'école, école yoo xam primer sur la les valeurs de compétition bi xam ne ñu l'école actuelle bu ñu donc il tamit nañ ci gën ñëw euh pour gën ci mën waxtaan mais on parle de mind uploading tamit c'est une réalité de notre siècle aujourd'hui ci xalaat xam nañ ni tout ce qui est interaction tout ce qui est khalat, tout ce qui est intelligence dans les sciences cognitives xam nañ ni mais xam-xam la xam-xam euh sont des données données yooyu ñu xalat naka lañ koy mëna extirper du cerveau Mëna nek mën ko am xaw na seetaan ngeen film bu ñuy wax Lucie film bu intéressante la bi nga xam ne Lucie après intelligence ba mu demee ba 100 dafa mujjee def lépp ci benn clé mais lii ay chercheurs yu mag a mag ñu ciy xalaat ay laboratoires yu rëy rëy yi nga xam wax dëgg yàlla euh, yes mind transfer merci ma Madiagne donc lii ay xalaatkat ñu ciy xalaat te dina ami dina ami ci ab àdduna dina ami ci donc li ñu war a bàyyi xel la xam ni euh, monde bi taxawul monde bi taxawul donc on parle de biorobotique n'est-ce pas euh, des humanoïdes on parle de pollution numérique maanaam dafa mel ni beaucoup de choses tournent autour de ce qu'on appelle à data donc moo tax sama livre boobu di di waaj peut xam naa fin d'année incha allah di si jot

monde bi tamit ñu wax la 21e siècle euh, dafa unique lu tax mooy dafa unique dafa basé sur benn benn réalité quadruple ñu wax la VUCA euh, VUCA pour ceux qui n'ont jamais entendu mooy que ce monde là il est dafa il est marqué par la volatilité les choses sont volatiles mbir yi taxaw mbir yaa ngi daw di daw daw yi nga xam ne euh, même ku jàng benn domaine moom laay sànnee xeer sànq ay sama benn xarit médecin <laughs> même médecin sax bu tok liirul gëstuwul actualité médecine dans le monde bu togué cinq ans nulaar la nekkul médecin donc euh, assistant médecin la wala a mën n'est plus médecin donc les choses sont éminemment dynamiques bi yaa naw di daw taxaw loolu xon nan kullu yawmin huwa fi sha'nin bi dafa melni ah mu ngi si sayru sayru bu doy waar sayru euh, sayru c'est la marche donc au-delà de la volatilité il y a de l'incertitude n'est-ce pas incertitude n'est-ce pas incertitude euh, vu V comme volatilité moi la volatilité U comme euh, incertitude donc euh, incertitude le C comme de la complexité ce monde là il est complexe nous jàng le monde avec une branche cassée aujourd'hui pour dire un phénomène on ne peut pas dire que non non c'est physique physicien la non c'est faux un physicien kese peut appréhender des phénomènes phénomène yoy il faut ñu aborder sous un angle multidisciplinaire wala pluridisciplinaire c'est de la physique c'est de l'anthropologie c'est de la philosophie c'est euh, des sciences cognitives c'est des neurosciences c'est de l'économie c'est beaucoup de choses Il y a wax deug yalla ignorer pour que l'école soit intégrée. tamit kon école daf ko war mu école bu lay wala par matière wala a jàngal kon euh, li croisement manam fi matière yi est kon école est la wara L'école dem dafa wara compétitif il faut jouer son rôle ci siècle bi ñu nekk euh, waaye tamit ambiguïté ah ambiguïté donc ce monde là il est il est marqué par l'ambiguïté donc notre monde actuel euh, bah, pour pour nous mën ko xool bu baax a baax xayran euh, Ousmane merci beaucoup volatility uncertainty incertitude complexity and ambiguity donc ce monde il est marqué par ces quatre là ce qui moy euh éducation gis naa ñu bëri wax moo tax sax ma jël décision ne foog jël ci waxtaan ci euh, laayante ci biir euh, merci Marie pour approche systémique wala approche holistique euh, nga xamné approcher de manière unilatérale unidisciplinaire un problème donc dang koy xol exemple vaccin yi suñ ko bëggee xool sur l'unique langue médicale dañuy juum le vaccin a des implications géopolitiques il y a une concurrence, il y a des, il y a des intérêts, dans le monde. Euh, il y a des réalités euh, de santé, effectivement, santé publique, mais il y a des réalités de mind control, il y a des réalités euh, de, de, de contrôle des populations, en démographie, n'est-ce pas Il y a des réalités wax dëgg euh, purement technologique on est en train de parler de technologies comme la technologie à ARN messager wala des ADN recombinés etc. cetera yi a xam de li xam sur les vaccins yu vaccins yi il s'agit juste de virus atténués, ou de virus euh, tués injectés euh, injecté pour stimuler ce système immunitaire donc et donc aujourd'hui appréhender si benn discipline que c'est un problème

On ñu jàngale suñu histoire loolu ñëpp nangu nañ ko ñëpp nangu nañu war a jàngale ak suñu ay làkk ah, tamit ñëpp nangu nañ ko mais on nous allons pas au-delà de ce ñu war a quel doit être le menu euh, le euh, à l'école euh, c'est un problème waaye ñaareel ba du kese les questions de quoi mais question de pourquoi pourquoi école war continuer pourquoi école di am école pour lan question bi ñu néew ñoo ci répondre te ñu néew ñoo ci xalaat et nañ si ñëw bu baax ci biir waxtaan bi euh, le pourquoi de l'école a été biaisé lii moom c'est un fait euh, waaye le comment le comment la ñu war a jàngalee à l'école di tamit vraiment ça doit nous inviter ñu xalaataat bu baax a baax li ñu nekk di wax ni instant ci école fan lañ ko teg euh, damay fàttali benn citation wu Lao Tse mu waxoon ne mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres donc c'est vrai que taxaw di décrier c'est facile facile jàpp naa ne ñëpp mën ko def mais est ce que war ñu dem vers une solution même bu dee solution bi elle est partielle elle est incomplète manam matul euh laalul lepp mais au moins ce sera ben début et début bobu keneen ak keneen ak keneen ak keneen mën na ko déglu ne ah mais yow Cheikh Oumar lu mu wax fii ah oui c' est vrai il a raison mais fait il a tort fii dañ ko defee nii ak nii et c' est par ces enrichissements là n'est-ce pas Ces enrichissements multiples euh, ces collisions les collisions intellectuelles qui vont s'opérer c'est ay mais loolu lañ générer après ben ben rubis pas un rubis plus qu'un rubis ben, émeraude euh, de connaissances pas ça émeraude comment dirais-je ben saphir de science donc wax il nous faut il nous faut nous côtés côté bon Eh, pour mëna a mbir yi bëri nak lu doomu adam di lajj eh, lajj yi muy lajj lu koy yóbbee ci loxoom lay ko yalla wax na ko sax <laughs> bima kasabat ay bima kasabat ay dikum manam ñu suyu loxo def ñu ñoo lor suñu bopp dans les choses que nous créons dafa am ben benn eh, kat bu mak bi xamné poète la euh bu am mana sax bu am mana c'était un perse iranien donc il s'appelait tur sax euh, Hakim euh, Hakim Sanaay donc dafa bind benn téere tudde ko xadiqatal xaqiqa donc euh, benn poème de plus de onze mille de onze mille vers dafay tàmmoon de wax lu am solo dafay doomu aadama lépp lu muy dafa mel ni misaalam mooy benn araignée la dafa mel ni araignée la buy tisse toilam ba pare di jàpp boppam ci biir propre toilam parce que effectivement devenus nous sommes piégés et nous sommes euh, dañ dafa dañ ñoo tëj tënkuñu jàppuñu ci ay mbir yoo xam ne ñoo ko créé nit yaa ko créé nit yaa ko créé pare bañ ko amandé euh, bañ ko faire avancer l'État est une création humaine la République sont des créations humaines la monnaie yépp c'est des créations yi xamné ne na sonal doomu adam l'école en fait partie nak et dañ dugg bu baax baax ci ban école lañu bëgg waxtané donc Asimov qui est un un fictionniste wala ben un grand penseur dans na wax nan euh, sagesse manam ay production connaissance bu de la production sagesse civilisation bu ko mën def dafay mën aujourd'hui est-ce que nous sommes école l'école, ay ay ay ay est-ce que hikma dugal ni ko ci biir école est-ce qu'il y a de la sagesse à l'école je pense que non euh, l'école là rôle bu gën a c'est de délivrer des certificats d'aliénation on dafa bëgg de former ay cons en réalité euh, excusez-moi du terme mais c'est la première chose que l'école est en train de faire le but premier de l'école ndax école euh, le modèle actuel de notre école est un modèle qui sort réellement euh, de la révolution industrielle la révolution industrielle li produire en masse une seule chose pour tous donc quand on va fabriquer ben tal la bi pointure yaa mais moy nuro on pare de même quand on va fabriquer c'est pas radio, radio bi dañ distinguer après suivant les prix suivant ku nekk mais radio bi même fonctionnalité le même design la même marque la même lèpre, même procédé même euh, même outil etc. l'école est en train l'école dafa nier nos différences l'école actuelle dans le monde entier là dafa nier suñu ay différences nier suñu ay spécificité nier suñu ay degré yu outé ci walu intelligence en réalité euh, l'école daf ko nier l'école produit un programme pour tous créer ay classes ben na standardiser c'est une standardisation sax de l'offre ay classes classe bu nek li la lay jox comme programme euh, so défé li baxna si deful tu es un très mauvais élève pouvez lay sanctionner donc l'école son rôle en réalité n'est pas de faire émerger la connaissance xam-xam wala former kenn jël ay responsabilités meuna jouer son rôle ci société bu mu euh, école bi actuelle et bu grave sax école Sénégal tax euh, ambition ambition donc euh, aujourd'hui il s'agira donc de parler entre éducation instruction ou wala apprentissage je suis dans mon si nga suis dans éducation au Sénégal l'école mission d'éducation euh, on va parler peut-être de l'instruction euh, et dans ce cadre-là le prof n'est plus intéressant parce que le prof est un distributeur automatique de connaissances il n'est pas un catalyseur Il n'est di catalyser xam-xam yu nelaw ci yi mën donc il donne le même contenu à tout le monde n'est-ce pas euh, donc instruction bon, euh, ni ko yàqee par rapport à l'apprentissage on n'a pas assez d'apprentissage. donc li donc euh dama japp ni ben problème la muy Sur le système actuel système éducatif actuel il est scalable ah, on peut le reproduire autant de fois qu'on veut day wone rek ni kon euh, dañoo standardiser ben modèle citoyen bi xam lu bëgg a am motax mu mu respecter cette scalabilité là dinañ si après quand on va parler d'ergonomie incha rabbi euh, le système actuel d'accord ce qu'on appelle le mentorat euh, on n'a pas un mentor on a des professeurs mais on n'a pas des mentors Les dañ après lu tax mu am ay jafe-jafe ndax société yu njëkk ya ndax ay fa professeurs les plus grands savants yi la am euh, des professeurs ndax dañoo jàng ci ay professeurs la ñoo jàngoon ci ay mentor li wax dëgg yàlla euh, war nañ ko bàyyi xel n'est-ce pas l'école actuelle est basée sur une compétition absolument pas sur la coopération li tam c'est un fait bañ na ko sax dañuy rawanteloo nit yi man j'ai honneur noté les étudiants su ma leen sax sama xol day jeex sincèrement parce que euh, son sama sagoro ma noté étudiant donc son sama sago étudiant yi sax ñu nara recette bopp <laughs> ñooy recette seen bopp ñoom donc euh, et su boobaa sax day intéressant kenn ku nekk il a une responsabilité mais mel ni comme si entreprise euh, mun naa jox exemple Sonatel euh, quand on donne à des employés des actions entreprise boobu responsabilité bu employé bi di am embaucher employé bi xam ne dañ ko embauché direct di fay salaire waaye moomul dara entreprise bi fin d'année kenn du jox si il y a pas de dividende su amee super résultat du si gagné donc la maîtrise de charges ak yëpp soo koy wax un employé bi nga xam ne il n'est pas actionnaire da xool de haut de jàpp ne ki dafay caaxaan alors que bu dee actionnaire nga yaa da nga moomaale chaque fin d'année ñi lay fay ay dividendes kooku la maîtrise des charges ak la responsabilité sociétale ak y a beaucoup d'enjeux yi xam ne kooku il l'intègre facilement et de manière euh, moo koy nangul boppam c'est que fa laa bëgg a waxee l'école on n'a pas fait ce on n'a pas transféré ce ñëw léegi gis pourquoi kon ñàkk transfert boobu am problème Euh, daf ñuy fàttali kon ci cadre boobu lu Aristophane waxoon c'était un grand philosophe euh, qui disait que euh, l'enfant n'est pas un vase à remplir Allez ah, li ma xam ne solo trop l'enfant n'est pas un vase à remplir mais un feu à allumer waaw ah, kon am na luy nelaw ci gone gi waruñu ko jàpp di ko jóor ay wax ay waxi jàmbur ak ay xalaatu jàmbur ay histoire jàmbur ay gis-gisu jàmbur di ko fëgg xale bi te fekk jéemu ñu yee euh, loolu yàlla dëxañ ci moom te muy nelaw ci moom ndax doomu aadama bu nekk yàlla dëxañ na ci moom euh, lal fa et l'oméga des sciences di c'est un secret de l'âme dañuy wax ak rox loo xam naa ne peut-être nañu am bës jotaay en tant que soufi euh, waxtaan ci loolu incha allah Gaynde Njaay maa ngi ziar bu baax maa ngi jéggalu effectivement maa ngi fàtte wolof la ñu war a macha allah ziar lañ bu baax a baax ñëpp wax kon ci éducation ci jang daf ñu yóbbu tamit ñu waxaale tam problème souveraineté ndax aujourd'hui aduna bi amna programme bu ñuy wax GPE ah muy euh, global partnership on education donc euh, GPE boobu sooy fàttalikoo mo taxone Rihanna ñëw fi Sénégal année 2018 ak Macron donc aduna bi kon ñuy woyé mondialiste ñom ñoom ñu ngi xalaat instant nak lañu wara harmoniser unifier euh, ce qu'on appelle l'éducation donc euh, ñoom ñuy xàcc loolu donc kon ñun nag si suñu pour mën a mucc pour mën a jouer suñu rôle pour mën a defar ay ndaw yu yoo xam ne mën nañu doxal àdduna ah il nous faudra que ñu dañ ci ci ci plan boobu nga xam ne euh, ñi ilif àdduna bi tëral nañ ko pour am benn seul citoyen citoyen universel un village planétaire monde bi nga xam ne benn dëkk loolu man vraiment lu may mettit lu la lu ma nanguwul la ndax yàlla daf ñu daf ñu consacrel suñu ay différence n'est-ce pas daf ñu consacrel différence wa jaalnaakum shuuban wa qabail li taarafu mu soo wax ne inna akramakum inda llaahi atqaakum donc euh, les peuplades et les tribus yàlla ko def ñu nekk ñu uute li taarafu ndax on a des échanges à entretenir dañoo war a dañoo war a jokkalante jokkalante dafay tekki ñu uute nañu uute yooyu nag ay richesse la ay richesse la nañ si ñëwaat léegi ndax dèjà lu si du borom xam ne naan ixtilaafu ixtilaafu ulama ne euh, loolu raxma la euh, ixtilaaf mooy uute mooy uute euh, uute bu borom xam-xam yi di uute mais loolu yërmande yàlla la te tawféex la donc on va kon opposer lu ñuy woowee ay compétences ak ay connaissances ay compétences ak ay connaissances comment y arriver nañ si ñëw léegi jéem a andi ébauche solution pour voir comment faire pour mën ci arriver donc kon. pour leeral fu ñu bëgg dem dañoo war a kon xalaataat njàng bi ak njàngale gi lu tax ñu ko xalaataat dañuy xalaataat euh, hadaf gi maanaam quel est le but de l'éducation lan moo ko tax a jug la mooy jubluwaay bu tax ñu war a taxawal ay école nest benn la euh, ñaareel ba euh, ban méthode la ñu war a jëfandikoo ndax méthode yu jëfandikoo ndax baax na wala baaxul méthode yi dafa mel ni dañoo périmé te wala ñu réinventer méthode yu méngoog suñu jamono ba pare méngoog enjeu yu àdduna bi tollu tey ji waaye yemul foofu yan évolution la ñu war a jox école ndax école wartul yem euh, école déjà mënul continuer ni mu mel nii mënu ko continuer te loolu corona bi kese wala ñu ko jàngal corona bi jàngal nañu lu gars tàmbalee xool nu ñu dématérialiser école décentraliser école euh, nit yi war a mën a toog seen kër di jàng euh, ñuy wàññi présentiel di def ñu jox rek benn idée ci ban évolution la école dem dans le vingt e siècle surtout que may wax léegi la démographie mondiale mu décroître donc dès na tuuti des na quelques décennies peut-être d'ici 60 ans d'ici 70 ans voilà, 80 ans euh, école sera plus benn jotaay pour ñu dem benn place toog pour jàng loolu du amati donc comme que nag loolu du amati kon war nañu déjà commencé xalaat euh, ci ci curricula yi ak euh, voilà évolution yi donc. Euh, macha allah ndik Malick fay ñu ngi koy ziar bu baax Pape Tall Baye Fall ñu ngi ziar lu bëri bëri après ñu ko dinañ la ko jox incha allah et Ousmane Diagne laa mafia ka kàcci waaw ñu ngi ziar bu baax a baax euh, di la béggee lu bëree bëri waaw lépp lu naqari Macky rek ñoom neex na leen neex nañu sax nag man la ma bokk ci mafia bi <laughs> donc euh, école nag aujourd'hui mun naan dafa am benn problème bu ngande école mondiale nag laa problème bi mooy. Euh, xam ngeen ni si àdduna bi ki nga xam ne maçon la maçon buy tabax laa waxuma franc-maçon yi de maçon buy tabax mënul réere la mooy différence brique douze ak brique plein brique creux ciment nan lañu ñu soxla ciment pour gazer su ma soxlee raax ban naka laa war a gazer ban ban mélange mooy mélange bu baax pour gazer euh, gazer raax ban mélange mooy mélange bu baax pour gazer gaze bi nga xam ne gazer coulé la ban mélange ba mélange bu baax su ma waree dër ban mélange ba mélange bu baax bu ma waree euh, defar brique donc matière première bi nga xam la maçon bi liggéey bâtiment di liggéeyee mooy ciment ndox suuf béton fer lii mënu ko réeree bu ko réeree c'est un mauvais maçon dara ci n'est-ce pas on est d'accord waaw un mécanicien bu xamul dara ci moteur bu xamul la mooy moteur c'est un mécanicien la il maîtrise la mécanique euh, qui c'est pas un mécanicien qui c'est un bricoleur <laughs> Ou un mécanicien donc Niki, qui li muy ligué un juriste un avocat mënul le droit Le fait, de faire le droit qui, je ne peux pas l'appeler juriste ni avocat qui est te le truand le tonitruand mais ce n'est plus un avocat aujourd'hui il y a une grande contradiction bien xam ne euh, moom moi, lu le ki nekk école enseignant bi jàngale ak élève bi jàng ñoom ñaar li ñuy gën a jëfandikoo li ñuy gën a utiliser la wax de ñoom ñaar dañ ko ko le cerveau on on n'a pas appris ni à l'enseignant ni à l'élève qu'est-ce que c'est que le cerveau comment fonctionne le cerveau quelles sont les limites du cerveau comment contourner les les défaillances du cerveau manam lepp li nga xamné dafa aju ci cerveau nga xamné moy matière première bu ñuy convoquer pour mëna jang jang jàng mucc ayib wala pour mëna jangalé jàngalee joxe xam-xam mu dugg ndax bu dee xam-xam lañ koy joxe kon c'est une dafa mel da ngay teub ya ngi teub xale bi n'est-ce pas euh soo koy teub li koy teub war ko xam ba paré fim wara dem nu nga koy analyser nu nga koy joté war nga koo mën da nga ko war saytu xam ko donc la première contradiction de l'école actuelle moy les acteurs yi xamné ne ñoo ko séq lii tax jàng bi mën a nekk baax mucc ayib gën même ñaar ñëpp xamuñu ko kenn jàngalu leen ko euh, man le cerveau c'est pas lekkool lañ ma ko jàngalee donc j'ai appris dans le temps sans pour autant comprendre li ma nekk di jàngee lan la naka laa ko war a jëfandikoo naka laa koy rendre naka laa koy optimise n'est-ce pas naka laa koy optimiser ndax matériel bu sophistiqué la le cerveau est très sophistiqué euh, doomu aadama ba tey xamaguñ ko. xamaguñ ci dara sans réalité xamaguñ ci dara liñ ci xam matul 2 pour cent wax dëgg yàlla dañuy jëpp jëpp nii rek waaye xam matul 2 au moins dans les neurosciences dans les sciences cognitives am na au moins ay bases des principes et des propriétés yoo xam ne ñu la koy jàngal ci cerveau yi xam ne soo ko xamee dina tax nga gën a mën a utiliser sa xel orienté ko par rapport à tes objectifs à tes buts dafa am soo trop ñu bàyyi ko xel lu lu am solo Mor Diop Cheikh Lo ñu ngi leen di ziar bu baax a baax Modou Touré ah Khadim Bamba ah ñu ngi leen di ziar bu baax baax di leen bëggee lu bëree bëri donc euh, l'école actuelle kon dañ ko taxawal ci caay-caay bu ñu naxante ci caay-caay ko teg ndax li ñu war a jëfandikoo sax xam comment l'utiliser xam ma chaque fois la ne gars même la concentration professeur da ngay tok primaire mu le concentrez-vous mais comment ordonner à un élève quelque chose bi nga xam ko ko comment se concentrer li soo demee au Japon ñu koy jàngalee xale lan mooy la concentration comment optimiser la concentration comment déjouer la fatigue le stress l'angoisse si classe quels sont les minima yi xamné xam mën nga ko def pour dindi stress dañ koy jàngale xalé yi parce que mun la sant li xamné xam ne jàngaluñu la n'est-ce pas mun la sant li xamné xam ne jàngaluñu la donc il dafa am solo top dañ ko bàyyi xel donc euh, dina si ñëwaat léegi gën ko xóotal euh, aujourd'hui kon l'école dafay dafa yor ce qu'on appelle l'enseignement de masse la yor un enseignement de masse euh, dafay une compétence de l'homme aadama yi aujourd'hui kon compétence vraiment maximiser maximiser euh, le cerveau di intelligence bon figurez-vous que tu vois intelligence il y a des théories intelligence théorie euh, ben ben bind par rapport à un ouvrage bi xamné euh sur les les savoirs les connaissances bi xamné man dama ci d'accord bu baax ak psychologue bi ba ci wax sama approche man approche tasawuf la donc j'ai pas une approche de purement scientifique man ma approche tasawuf la je le précise tasawuf dafa féete kaw science ndax la science dafay abreuver wu tasawuf tasawuf dañ dafa encastré wu su ñuy al marifa, la marifa la structure ou l'océan des savoirs des connaissances des arcanes des secrets des dons des attributs les li nga que ci may yi ci yi ci xam-xamu aller yi euh, donc euh, ci euh, nta nga lenn la c'est sallallahu alayhi fort science histoire de correction de l'erreur, le L'histoire de la science n'est que l'histoire de l'évolution et de la correction des erreurs. On remplace des erreurs par des erreurs moins absurdes, n'est-ce pas Donc, euh, on parlait d'intelligence comme. Il y a des théories comme la théorie triarchique de Sternberg, Sternberg. Donc, il parle d'intelligence pratique, d'intelligence créative. Sur école actuelle, stimuler l'intelligence. Sur école actuelle, mémorisation, ak euh, capacité de restitution capacité d'analyse simple li lañuy ñuy jéem a jàngal yi képp ko réussir ci li ñi japp ni tu es intelligent bravo képp ko ci échouer ñoo japp ni tu es nul euh, da ngay échec ce qui est fou ce qui est faux euh, li lu ndaw ndaw la c'est trop petit sax pour stimuler intelligence homme. aadama euh, jàngal la soo nga mokkal ko ñu poser ces questions nga répondre ko li ça va absolument c'est même pas un vingtième de l'intelligence humaine Il y a doomu l'intelligence intelligence ëpp nu ko nous, euh, on parle de 18 intelligences 18 formes d'intelligence Madame, on est en avance par rapport euh, par rapport même au doigt de la main par rapport au trait le trait 18 et le trait 81 euh, li de gën ko yaatal ci y a une théorie des intelligences multiples lu wax li wax donc euh, ku ñuy wax Gardner moo ko moo ko moo ko théorisé ku ñuy wax Howard Gardner donc Gardner euh, li mu théorisé wax dëgg yàlla c'est huit intelligence euh, wala bokk neuf je pense que huit la sax huit la donc intelligence yooyu école solsité su may benn benn donc intelligence wala ñaar deux intelligence sur huit donc intelligence yu bëri que ce soit intelligence émotionnelle y a beaucoup d'intelligence yoo xam ne école stimulé wu ko

Euh, et Einstein li wam waxoon rek ne bëss bu ñu jël jën di bëgg mesurer intelligence am ci yéegum garab bu jën il va se concevoir comme quelqu'un d'idiot à vie effectivement l'intelligence d'un poisson war ñu ko mesurer bu ñuy mesurer golo golo mu ayé manam la performance d'un golo warul nek performance yu jën dafa ñaar ils sont deux mindeef yu ute lañu deux teggine yu ute lañu deux réalités yu ute lañu deux mondes sax yu ute lañu donc aujourd'hui réalité boobu maanaam spécificité boobu ak uute boobu lii ñuy woowee ñun école moom jëlu ko en compte suñu xale jëlu ni xale yi dañoo uute waaw ah, donc dafa am benn modèle bu mu teg modèle boobu tu t'adaptes ou tu disparais wala xamoo dara man nag damay am chance wax ci école à l'aise parce que euh, heureusement jàng naa école te am naa diplôme su fekkoon oustaz la bu jàngul école gars yi amul sotti dañu may ree ñu naan kii amul diplôme jàngul moo tax muy wax li muy wax heureusement que jàng naa si école yi si école yi bokk naa ci école dugg naa ci école euh, mais l' école a d'énormes problèmes donc euh, li ma doon wax kon mu ñu tàmbalee gis ni l' école a un grand problème son premier problème mooy que nanguwul suñu uute li def may permettre ma mën a dugg man ci première ébauche de solution yoo xam ko gis avant ñuy wax waxu refondation parce que man refondation la bëgg ñu dem té pour ñu dem fa école bi ñu melni ni elle va waxuma sax Sénégal kese mais dans le monde entier dafa war a changer mais avant may egg man ci refondation la may xool ci benn réforme man réforme bu daw bi xamné bëgg naa ñu xool réforme bobu ensemble gis ni réforme boobu bu ñu ko defoon mu na euh mën na am yenn mbir yi am solo Papa si Papa si maa les lay bax non gëw ma ne intelligence c'est un don ndax ñu bari ñoo jàpp ni intelligence benn don la ba am ñeen ñi nga xam ne sax dañ ciy sànniwaate xeer xam nga sooy xool si si zaahir su may expliquer rek tubaab bi ñoom am nañ benn outil bu ñuy mesurer intelligence doomu aadama yi seen outil ñoom c'est le QI n'est-ce pas euh, le quotient intellectuel on parle de quelqu'un qui a un QI le QI moyen pour un homme bu ñu jàpp ni kii il est normal bof c'est 100 100 la mais avec euh, mën nañ ko intervaller parce que science dafa tam intervalle mën nañu intervalle entre 85 et, disons ba entre 85 et 115, ba il a un QI normal maanaam kii nit la bu normal si wàllu intelligence doomu aadama te intelligence bii nii sooy xoolee test QI yi li muy mesurer kese sa logique la la logique analyse ay ay ay ay test technique la euh, mémorisation euh, mais mesurer ou le bëri de cette intelligence? c'est même pas deux types d'intelligence pas parmi 18 donc comme on nous considérer wax comme étant la base d'une personne elle est intelligente oui ou non n'est-ce pas euh, qui est intelligent et qui ne l'est pas c'est une autre question bien qu'on doit après poser pour dire que xam kan donc le QI euh, des études en tout cas des psychanalystes des psychologues ont montré que 67 de la population mondiale QI normal, ils sont entre 85, le maximum, je vais dire 115, bon, 120, même 120. Donc, ils sont, ils sont normaux. Moi, nous avons des HPI, des hauts potentiels intellectuels. Nous avons des surplus. Parce que par rapport à ces tests-là, les tests sont à plus de 115, ils sont à plus de 130, 130 djemkaw. N'est-ce pas? 130 djemkaw. Euh, ñii ñoom dañoo jàpp ne ay souple pourtant ñi ëpp si ñii dañuy échec seen parce que plus ce quotient intellectuel di élevé maanaam plus nit ki di logique di rationnel plus hypersensibilité di gën a plus mu nekk quelqu'un buy am ay problème avec la société parce que intelligence sociale tam si intelligence la bokk quelqu'un mën na mën jàng te amul intelligence sociale mu dund ak doomu aadama yi mënul communiquer mu dëkkandoo et etc. donc ni euh, bëri si ñoom ils ratent leur vie HPI euh, yooyu ñoom dañoo 2,5 de la population mondiale bi la am ay dëkk ay yi HPI des HPI on les on les on les on les on dañ leen tel leen dans des centres et des écoles spécifiques pour di leen en charge loolu tam naa c'est un problème au Sénégal on n'a pas de centre pour HPI on essaie même pas de de d'identifier et de repérer des jeunes qui ils ont un potentiel très haut un potentiel intellectuel bi très haut benn capacité d'analyse très précoce euh, on les appelle des zèbres euh, de à tubaab mais on les appelle voilà euh, bon zèbre pas zèbre khari, voilà au moyen zèbre mais nga xam ne là là. donc mais ces HP, là ils sont de 2,5 maximum 3 bon vous me direz qu'il reste 30 30 oui, les grands idiots les idiots parce que il en foutent. Voilà a ils ont un QI inférieur à 85. Donc, ils ne sont pas logiques, ils ne sont, pas rationnels, ils ne sont pas mesurés dans le test de test QI. Encore une fois, mon test QI, je y a à 100%. Après, y a un type d'intelligence pour nous renseigner, n'est-ce pas? Euh, de importe, Donc, 30%, il y a 10%, il y moins 50%. 20%, ils sont entre 50 et 85%. mais ñii ñëpp ay dof lañu maanaam dof lañu nga xam ne amuñu xel amuñu xalaat amuñu seen gis-gisu bopp ci lépp lu ñu mën ci nekk dañuy toppaate dañuy toppaate donc sooy xool même réseaux sociaux yi fi Sénégal ñi nga xam ne amuñu xalaat buñ duggee ñuy xool la ñëpp wax lu ñëpp wax la ñu wax bu ñu gisee kenn saag kenn dañuy ñëw saagu ko soo laaj lu tax nga saaga noo xaw moo gars yi ko saagaan kii baaxul waaye fa lañ taxaw maanaam les idiots et les cons yi yom leen tàmm woowee vraiment dafa am nag am na donc mais parenthèse bi sa la woon donc euh, Euh, Kempes effectivement noonu la demee nag Barham genre Gaston Mbengue si ñooñu la bokk <laughs> donc et cetera et cetera donc voilà entre parenthèse moo tëj parenthèse donc euh, kon Sénégal kon ñun amuñu kon benn benn vision par rapport à ça li tamit c'est un problème donc euh, ñi nga xam ils ont un potentiel élevé comment les prendre en compte comment les les les utiliser comment les prendre dès le bas âge

trois choses le fondamentales vraiment yu élémentaire xamné suko déjà on peut commencer à espérer construire une société bien xamné xam euh, société am lay d'ici une génération parce qu'il faut une génération pour des une génération c'est 20 à 25 ans il nous faut sacrifier Ces euh, si ils ont eu deux ans fa la tambalé aujourd'hui ñi am 15 ans Paris c'est déjà pour Nous, c'est mort Nous, sur classe c'est déjà mort euh, mais il nous faut travailler sur le bas âge yi nga xam conscience bu euh, par rapport au Sénégal, horizon 2050, par exemple. Un sang qui commence à tomber. Vous voulez que vous ayez à 14h pile, pour que vous ayez 14h15, il faut que tal à 11h, il faut que tal à 11h. Donc, si vous ayez 14h pile, vous voulez tal à 11h, ce n'est pas possible. Donc, euh, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux dire, c'est d'abord, une éducation, une éducation, une école, mais sur 13 ans. Je suis d'accord avec 13 ans. Il a 11 ans euh, pour moi, 11 ans c'est 11 ans école 11 ans supposons 11 ans là. en 11 ans c'est... Euh, rare, même pousse excusez-moi donc à 11 ans Niki 5 ans à 11 euh, ans il a 16 ans bu ñu fait 13 ans à 11 à 13 ans il a 18 ans. treize ans bi nag forme bu ma neex la naa ñëw léegi wax pourquoi ma opté treize ou onze euh, fàttali la sax yonent bi salaay salaam naafi lañu ko xamee naafi lañu ko xamee guddi après gée treize rakk la ou onze rakk naa ñëwaat léegi pourquoi ñaari chiffres ma tànn ko mu gënal ma xale il faut ñu nangulante encore ni li ëpp soo suy dund ñun ñi ñëpp mooy diggante zéro ba sept ans mooy âge bu gën a important ci doomu aadama âge bi ce qu'on appelle la personnalité maanaam dëgg-dëgg yaay kan dëgg-dëgg li nga nar a def dëgg-dëgg fi nga nar a dem ci âge boobu ñu koy togg ci xale diggante zéro ba sept ans ku la jiitu ci xale diggante zéro ba sept moom na xale bi ku bàyyi xaleem diggante zéro ak sept ans bàyyi ko si ay caaxaan yàq na xaleem c'est pas pour hasard c'est pas un hasard nitu njëkk ya doon jéem a jël xale yi balaa juróom-ñaari at leen jënk leen ma seen xale yi jox leen ma leen ma defar leen def si ñoom yàlla âge boobu âge bu am solo la ak diggante 7 ba 13 ans nga xamné moy presque la âge de transformation nga xamné euh, ba après si nga excès puberté léegi su xasee ba dépasser puberté euh, ce qu'on appelle les bases les fondements de celui qu'il est c'est déjà jeex na mat na li ci instant moy finition moy rax euh, raboté raaxaat peinture mais gros œuvre bi jeex na jeex na donc âge boobu la wara nga war a sonn âge boobu mooy dëgg-dëgg euh, âge éducation donc man sama xalaat man su ma amoon su ma supposons tey ñu ne ma yee kaay ñu gérer éducation andi sa xalaat sa premier xalaat mooy il faut une base dans sa maison éducation là, éducation éducation kër moo ko war def parent ko def responsabilité responsabilité état responsabilité école responsabilité ken. l'éducation yàlla daf ko dénk papa ak yaay papa d'abord mais yaay en réalité ndax yaay mooy dëgg-dëgg éducatrice université bi dëgg-dëgg yaay la c'est pas le père donc le père peut-être moi subsister à la famille moi moi moi gérer besoins et dépenses etc. mais la réelle université de dëgg de bi nga intelligence douceur harmonie amour Donc il faut ces quatre là pour pouvoir faire un xale donc kaat y yaay kese ko mën a jox il y a moi réellement euh, éducatrice donc pour moi waouh Waouh, waouh! <laughs> ngi c'est assez Assane policier bi nekk bu bàyyi la nekk bu bàyyi la balaa ñuy balaa ñuy def ci moom donc euh, il faut kon que les parents pour am doom ñu xam ne doom masuuli responsabilité la doom du lu ñuy am nii kese pour am ko non doom na nga ko war a xool ndax attan nga ko ndax mën nga ko ndax sañ nga ko ndax mën nga ko taxaw maanaam ci li mu soxla ci nga jëm ko wattu di responsabilité bu ngan la bi nga xam ne war ci gën a xalaat aujourd'hui wax dëgg yàlla en tant que jullit war ci gën a xalaat euh, donc ba 5 ans xalé bi soxlo mu dem ci ben école ni ci ben dara xale tok na toog këram yaayam di inculquer ay valeurs famille ndax une famille tamit c'est un c'est un centre c'est un centre c'est une hiérarchie de la société c'est une histoire c'est beaucoup de tradition c'est une culture ce sont des valeurs ay principes la ay normes la n'est-ce pas euh, ay mbagnel la ay luñuy bagn la ak luñuy ñuy ak li nga xam ne warul am li nga xam ne mësta am suñu kër nga commencé tàggat xale bi xale zéro ba cinq ans bul yaakaar ni muusul moo gën a muus mag bul yaakaar ni dof la dofaalewul donc euh, dofaalewul donc euh, aujourd'hui kon na gars yi bàyyi xel baax a baax ci premier step boobu xale bu ko ratee kenn mëntu ko dabwaat donc il faut kon balaa ñu jox ko éducation ñu war a dugg ci kër gi damay dégg xissa bu ñuy nettali si yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa ji ñëw di ko laaj pour ñaanal ko pour doom bi baax mu ne ko da ngaa yéex fekk dafa ko andi doom bi mu juddoo ba mu ngénte la ko andi mu ne ko yéex na waa ji yaakaar ni kon doom bi mu juddoo jour mu judd la ko war a andi ba mu ko defee si deuxième doom yi ba tey da ngaa yéex mu ne ko waaw yaa rasulullah kon kañ laa doon ñëw mu ne ko éducation tàmbali na avant ngay avant ngay sëy avant ngay ni nga tànnee yaayam sax ak ni ngeen àndee ak ba ngeen di àndandoo même en matière de couple na ngeen doon sëyi donc euh, mais tout ça li dañ ko légiférer c' est légiféré attention euh, chaque femme mën leen fii am na yenn pathologie wala boog une défaillance mentale wala psychique wala extra yu bëri nga xam du du erreur hein du accident du accident donc euh, ci outil gi la ci jëflante gi la waaw ndax say jaamu yàlla am ay charte comme julli am ay farata amna ay sunna amna ay fadail dañ wax ay faraid ay sunan ak ay fadail n'est-ce pas attention ñetti am ci am ci xamé bu amul julib wërul moy farata yi sunna yi dañ ko ci tamu fadli yi moy ngeeneel yi daf ci baax daf ci yokk daf ciy yokk cas ñoo dafay yokk cas jaamu yalla gi ni mu amé ci julli non la amé ci jaamu yalla yépp té nak sey nak muy la rapport charnel sax bi xamné goor jigéen ñu koy entretenir jaamu yalla si jaamu yalla mo dafa am ay tuyaab yu ñu ci fay

warul nangu di ko saxal n'importe où wala di ko saxal n'importe comment doo am sa ji de de valeur bi nga xam ne dafa cher nga importer ko dem ci biir Sahara la nga dem saxali Sahara non soo ko defee tu es tu n'es pas pertinent waaye tamit jigéen tamit moom tamit suuf la du n'importe quel suuf bu dee mel na ni mu war a mel toog fi mu war a toog euh, dox ci li mu war a dox suuf bu extraordinaire la suuf bu fertile la bi nga xam ne ah, warul nangu n'importe quel ji maanaam ji yu défaillant yi ji yu ñàkk solo yi saxal ci donc des deux côtés c'est une sélection ah, C'est une sélection c'est très important sélection mais pour revenir à nos moutons à 5 ans il y a des formations ci très aujourd'hui c'est des des disciplines scientifiques ñoo ko découvrir hein. entre 5 et 6 ans y a une partie cerveau mais c'est soo commencer commencé mat faut ñu commencer war a commencé avant âge boobu du Ah, waaw âge boobu gën ñu bañ ko jàngloo gën na donc lii moom euh, beneen débat bi xam ne xam naa ne débat la waaye débat bu am solo bi xam ne xam naa ni nañ si ñëw ndax am na benn euh, gëstukat bi nga xam ne euh, ah borom xam-xam la de kooku il a naa si ñëw après incha donc pour man kon ma part à 5 ans xale bi dañ ko a dugal maternelle baat bi si du hasard l' école maternelle dafa mel ni comme. dañoo jël lu gën a ñàkk sol dans système patriarcal bi ñu nekk aujourd'hui lu gën a ñàkk sol ñu tuddee ko yaay école maternelle dafa mel ni kon foofu on donne de l'amour à l'enfant dañ koy bàyyi mu fo dañ koy bàyyi mu bëgg dañ koy bàyyi mu kontaan dañ koy bàyyi muy wëy dañ koy bàyyi muy fecc di ko jox ay goûter di ko jox muy lekk man préscolaire boobu pour man moo gën a important ci ci système éducatif pour ma part man laa wax te naa wax pourquoi moo gën a important man dama gëm ne préscolaire boobu il faut obligatoire xale à 5 ans mais à 5 ans ñu jangal xale ay valeurs le programme du préscolaire tout dépasser tout dépasser quatre choses système de valeurs, valeurs dîner valeurs ad, valeurs famille ñetti valeurs yi inculquer ndax li mo gëna am solo ci tabax nit ba religion euh, préscolaire en 3 ans war na alcorane. dafa war a intégré waale daara c'est un moyen tamit kon pour embaucher waale tous les oustaz sëñ daara dugal leen dans le préscolaire ñu nekk ay fonctionnaires de l'État du Sénégal donc moyen la kon pour régler waale la question des daara en trois ans nit ki mën nga wàcce alxuraan aujourd'hui daara yu bëri fii internat à trois ans dañuy wàcce alxuraan xam naa si man ñu bëri ñaa dañuy wàcce alxuraan sincèrement donc euh, valeur système de valeur alxuraan ak les normes la société naka lañ dëkk bi lan mooy dëkk bi ak fan dëkk bi naka la war a lii kese mooy la programme sur ces trois ans là n'est-ce pas du la jàngal leneen amul leneen bu la neex sa jàngal nekk jàng gumba bu ko sax mën a bind ndax bu ñu commencé chargé sax xale bi ci ay reconnaissance symbole ak et cetera dañ ko bàyyi muy wax kese di ko di ko joxaat mu nekk des choses yoo xam ne daf ko mokkal di ko wax loolu du génti jamais si boppam n'est-ce pas donc trois premières années apprentissage bi man fof la fof la ko tek moy trois ans préscolaire pour man mo gëna important parce que fof la xalé bi amé 8 ans manam li ñu gënoon sox ci xalé bi les dernières années de 07, ans il va le passer au préscolaire fa ñu mëna a inculquer lu système de valeur et de normes, yi xam xalé bi fa lay jaaree intégré ko sàcc baaxul fet du yoon euh, nit ki day am njëriñ donc euh, et cetera pour parenthèse damay joxe exemple Finlande il y a un classement des systèmes éducatifs dans le monde. Finlande, est le premier dans le, monde, le premier. Le deuxième, Japon, le troisième, Corée. La Corée. Euh, quatrième, c'est Danemark. Cinquième, c'est la Russie. Euh, sixième, Suède, etc. Donc, nous avons les meilleurs systèmes éducatifs dans le monde. Nous Pourquoi nous sommes pas Pourquoi nous sommes pas classement euh, En Finlande, ce qu'on appelle l'empathie. Nous avons un programme Halei. Mon programme, programme Halei primaire, c'est l'empathie. empathie xam ngeen l'empathie dañ dara camarade euh, ngay quel est le point fort de chacun de ses camarades nga joxe camarade point fort bind ko ci fay suba soo nga andi ko ko point fort nangam la kontaan ci yow de l'harmonie entre les enfants te yi a euh, ça élimine les conflits dans les classes il faut responsabiliser l'enfant, il faut mettre en œuvre une forme d'intelligence spéciale l'intelligence émotionnelle Il faut activer depuis que vous avez donc c'est très important C'est très très important donc euh, en Finlande l'empathie fait partie du programme ils sont ils ont intégré des indicateurs à ont niveau. C'est comme l'Estonie. en Estonie euh, la cuisine fait partie du programme à l'école primaire les jungles cuisinent. cuisine et le bricolage pour les garçons la koy jàngal parce que normal bu ñu xaar ci yow nga war a màgg war a togg war a bricoler en tant que góor en tant jigéen te jàngal ñu la ko école dafa bokk si programme bi clair ay cours yoo xam ne cours de cuisine cours de bricolage dinaa si ñëw léegi man ci modèle bi ma jàpp ni mooy li gën pour ñu euh, euh, je vais dire réformer euh, dans le court terme suñu école mais c'est mon objectif de réformer, réformer mon objectif refondation école l'école dans son ensemble et comme on peut donner les solutions pour refonder l'école de l'école de l'humanité donc à 8 ans xalé bi premier cycle le cycle préscolaire le cycle le plus important L'école du jógee école maternelle l'école école paternelle Il n'y a que deux systèmes il y a le pater et la mère n'est-ce pas donc le système patriarcal bi faut dire les choses sérieuses l'école paternelle même si on ne le dit pas euh, c'est une vision totalement fausse pour moi. donc l'école bu c'est l'école maternelle la mère est li ëpp solo dans la construction de l'identité et de la personnalité chez l'enfant Moi, solo le papa donc euh, loolu moom duñ ko yaatal ndax alxuraan daf ko leeral loolu vraiment on sait que jigéen impact bu mu am ak li mu mën a jariñ xale góor mënu ko li on le sait dëgg yàlla tout ko on dans beaucoup de postes jigéen ñi ñoo gën a honnête góor yi y a moins de détournement chez les chez les les hommes góor yaa dàq sàcc tamit benn affaire la <laughs> débat wu ma ne du ci débat donc euh, le deuxième cycle c'est le cycle primaire pour man cycle boobu

du curriculum Li mo ci am solo objectif bi nangam la pour ngeen def ko man dama japp ni cinq ans mën nañ ko def pour mën bolé walé ay ce qu'on appelle des ateliers comme li ma lo wax légui en Estonie ak dans tout pays yoo y a des ateliers de bricolage de poterie Euh, il faut de dafa constituer ak consolider la personnalité de l'enfant Enfin, warul yem kese ci stressu di jàng jàng bi nga xam titre la vertical la ndax jàng bu vertical xam histoire son histoire effectivement c'est vrai que c'est une école euh, basé sur la révolution industrielle waaye waaye yemul foofu suñu école bi nga xam ne yaa été dañ ko dañ ko dañ ko tricher sur l'église ndax l'église jàng bi église moo ko moomoon église moo moomoon école yi moom moom université yi en tout cas dans le moyen âge ba ñuy egsi sur le, ce qu'on appelle les lumières ñu bëri dañoo jàng sax chez les jésuites ci catholique lañu jàngee et à l'église y a une relation verticale bu amoon entre le père wala le l'abbé wala le frère bi nga qui est moom euh, dans le clergé ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jàng nga xam ay xay lañ qui sont des laïcs ce qu'on appelle les laïcs mooy ñi nga xam ne euh, vraiment voilà ay taalibi lañu donc relation wu sëriñ taalibe boobu moo tax à l'école l'enfant ay souhaim ay bëgg-bëggam ay xalaatam libertéem sax may ñu ko ko à l'école et lii c'est grave xale euh, y a des études qui ont montré que jàng bi ba muy gën xel bi fi ñu koy gën a stimuler mooy instant bu xale bi gën a libre loolu naa si ñëw léegi parce que y a une école euh, bu nekk fële ci États-Unis bi nga xam ne mu ngi tudd Sudbury Valley School Sudbury Valley School école bi xam nga daal Massachusetts ay anciens professeurs d'université yu nekkoon Columbia ñoko formé ñoko ñoko taxawal mais école bobu euh nga fay dugg ba dañ fay génné li la neex ngay def Et école bobu 80% ñi fa jaar ils ont fait des études universitaires très poussées yeneen vingt ils ont été de de ay maanaam ay ndaanaan lañu ils ont créé des choses école boobu xam lu ñuy def da ngay dugg salaamaaleykum. école bi terrain bu ngànte la kër bu ngànte la amna lepp amna piscine amna mar pour pêche amna pour bricoler amna pour togg amna pour toj kenn du obligé élève yi ko li ngay defal loo def li ngoy koy mo def lu ko neex li mom il y a un TEDx sur YouTube vous pouvez le voir bi nga xam ne euh, y a un y a quelqu'un qui a fait un reportage sur le Sudbury Valley School euh, qui est un type d'enseignement enseignement bi nga xam ne pour extraordinaire manam top topp xale bi ci bëgg-bëggam l'équation instant de la connaissance l'équation de la connaissance euh, l'attention est fondamentale quelqu'un qui n'a pas l'attention attention ci li bien chaque fois ma tooñee ko sama gars yi sama man ba ma paree école laa ko jàngal sama bop parce que ma jang pour xam motax motax makoy tax motax koy fàttali moo tax quelque bi dafa won jàng nag sur la contrainte ak ci relation verticale moi dama koy trouver pour mën a sinon je serai sanctionné kii lu muy jàng mu naan koy gaaw faté fàtte di ko jëriñ ndax jànguwul pour xam donc l'attention et l'amour ñaari ils sont ils sont ils sont fondamentaux fàttaliku len euh, Léonard de Vinci Léonard de Vinci daf koon wax donc euh, il parlait de la passion comme le moteur même de la science et de la connaissance que une passion il a raison de Vinci il n'a aucun diplôme université donc il a il a eu un maître quand même il a accompagné mais mais Léonard était un savant c'était un savant Léonard sur la mécanique sur euh, les les les techniques militaires sur beaucoup de choses mais Léonard était en avance par rapport à Léonard, gars, c'est un humaniste. Léonard, ce n'était pas un humaniste parce qu'il savait, il connaissait ni le grec, ni le latin. Il savait le latin, le grec, amoo diplôme, pour ñoom amoo xam-xam. Pourtant, Léonard, ñooñu ñëpp dañoo xam-xam, bu seen morom ñoom si xam-xam. Donc, euh, et Léonard a eu comme élève le roi de France, François Ier, er nekkoon taalibeem, moom jàngal na Donc, pour dire que rek, euh, il faut de l'attention, il faut de la passion si li ngay pour pouvoir faire def, pour d'extraordinaire. a lu extraordinaire quand tu n'as pas la passion dans ce que tu fais, quand tu n'es pas attentionné dans ce que tu fais, quand tu ne consacres pas de temps dans ce que tu fais, ça est mon def on se dit la vérité. L'équation de la connaissance, euh, euh, c'est va après, Inch'Allah. Donc, dans le Sudbury, modèle Le modèle bien le modèle bobu. Euh, si nous est apprécié réforme épaule, on va le convoquer, Inch'Allah. Donc, par rapport à notre primaire, le primaire, 5 ans. Là, il un gang on doit apprendre aux jeunes à calculer toutes les formes de calcul addition soustraction plus euh, division euh, etc. avec des nombres premiers avec des nombres entiers et des nombres décimaux et des nombres rationnels calcul toute forme de calcul sans doubler les calculs supérieurs. calcul supérieur ñaar on doit aller faire des ateliers ateliers dafa war a bëri atelier manuel on doit stimuler l'intelligence physique maanaam on doit solliciter le corps des élèves wala ñu am kese si si bopp bi à l'école dafa mel ni bopp bi kese sollicité on doit solliciter le corps des élèves muy ñaar ay ateliers beaucoup d'ateliers poterie euh, bricolage euh, menuiserie maçonnerie cuisine yëpp dañu ko war a jàngal xale yi au primaire dafa war a nekk lu neex dafa war a nekk quelque chose bi nga xam ne xale buy téye saagam du mer dama koy xool sama bopp ma may dem jàngi école primaire kontaanu woon ba naa cay morom des fois may xool sama doom yi am si am si kenn ku bañ jàng nga xam moom day dem mu sax feebar feebar waaw di naxasaale ku bañ a jàngi effectivement école moo neexul on a pas rendu l'école attrayant on a pas rendu école l'école euh, mu nekk un cadre de jeu ndax xale jeu daf koy xëcc dinaa ñëw léegi ci la la comment ludifier euh, l'éducation maanaam on doit rendre ludique dafa war a ànd ak fo ndax fo dafa bokk ci mammifères yi et nit mammifère la les animaux la ñuy fo ci foole yi jàngee lu ëpp solo seen àdduna dama xooli ñoom gaynde dama xooli ñoom guépard ñoom tous les félins ñoom tigre ñoom jaguar ñoom ñëpp les techniques élémentaires de chasse yi xam ne dañ koy soxla pour survivre pour mën a dund ci ay fo lañ koy def mais ñuy màttan fekk màttantewuñu gaañantewuñu dañ nekk di fo mais ce jeu là jeu boobu apprentissage bu extraordinaire la le jeu est important pour l'humain il faut xale yi moo tax yaa ku mel ni Aberkan

ndax kii xamagul sax dèjà lu tax muy jàng kii dañ ko war a bëgg loolu muy def dañ ko war a dafa dafa ko war a neex muy yàqamti gaaw jël saagam daw dem école ndax école lay amee mbégte jege suñu la punee ba 5 heures ñu nodd ñu la mu nga dem fooy ni ngay yàqamtee gaaw daw génn pour dem fooy yi ah, euh, sensation la ñu war ci xale pour mën dem école mais su ko mënul def on n'aura pas créé on n'aura pas en yu bëgg suba incha allah loolu vraiment euh, ce sera pas possible donc des ateliers muy ñaar après, après le calcul. Trois, on, on l'apprend à lire et à écrire. C'est le rôle du primaire de faire. On a lire et écrire muy trois ñett war ko observation mu xam ban ban fan la quel est son environnement mu xam son environnement direct soo ñu koy jàngal des choses gis naa sama cahier ji nga sama doom bi nekk léegi lycée avant mi dem lycée au CM2 et même au CM1 mais ñu doon ay la lampe tempête la brouette le marteau mais leçon yu ñak fay yi dama xool leçon yi sax prof bi la bëggoon dem fekk ji mbaj ko xam ne kii kii couillon la waaye mais comment lañ mën a jàngalee xale ay la brouette la lampe la lampe torse le ciseau <laughs> le crayon kese moo de son? le crayon wala le papier pourquoi pas une leçon sur le papier donc li ñuy jàngale c'est nul et c'est idiot man xaw ma kam mooy defar programme mais kii vraiment ba pare rek di jàngal xale ay mbir yi xam ne ay ak la sexualité yi xam mais dafa jotagul woon ça en réalité mais je ne beneen débat donc l'observation, c'est muy muy euh, ñaar des langues les langues nationales et dama jàpp ni fii la révolution a commencé à fii la commencer commencé réforme c'est dans les langues nationales Les langues nationales sont privilégiées. on privilégie les langues nationales et surtout il wolof a des ma du question de sectarisme question de haine non on a la chance d'avoir un Sénégal bi nga xam ne 92 pour cent sont les statistiques par wolof déjà lii dëkk yu bëri fii yi nga xam ne jànguñu seen làkk ñoom amuñu ko boo demee Côte d'Ivoire dafay fekk ay centaine de ethnies boo demee Nigéria ay centaine d'ethnies fa nekk boo demee Bénin extra y a des yu bëri yi nga xam ne sincèrement euh, ethnies yooyu yëpp. Il n'y a 20 de la population amu langue bi nga 20 de la population ñu koy wax langue nationale donc ils n'ont pas le choix Côte d'Ivoire ils sont obligés de transiter par le français problème bu ñu am ñun Sénégal problème on a 92 des Sénégalais qui parlent Il y a que 35 des Sénégalais qui parlent français donc je vous laisse choisir quelle est la langue réellement nationale qu'on doit avoir quelle est la langue nationale donc les langues pour moi primaire le moteur ce sont les langues n'est-ce pas euh, ak ben chose essentielle la programmation les langages du 21 e siècle pour nous mëna am xalé ñu dans le 21 e siècle primaire li si ëpp solo la wax les langages du 21 e siècle les langage du 21 e siècle ce n'est ni le wolof ni le français ni l'anglais ni l'espagnol ni l'arabe vous savez c'est quoi c'est la programmation c'est la programmation pour un bu ndaw Actuellement, je me suis reformé à la programmation. Euh, temps yi il di développé temps il développé pour dire que c'est extraordinaire. Il n'y a pas de temps il n'y a pas de délai pour Djang. Djang, c'est une perpétuelle Djang. Même chaque instant nous ngi jàng di yokk compétences nous yokk si ay savoir C'est comme ça qu'on va relever les défis de notre Djang. Tant il dama a une conception de jeu de créer un jeu mais pas un jeu pour follow de aadama yi temps je joue un peu Fortnite. Ah, ñi xam Fortnite Mako <laughs> Mako moom xam na Fortnite donc euh, Fortnite un jeu mais jeu il est très violent FIFA est un jeu mais jeu il n'est pas instructif il libère c'est bien mais c'est pas instructif je pense à un jeu bien xamé c'est un jeu bien xamé qui va t'enseigner des langues ay langues yu qui va t'enseigner des savoirs basiques en biologie des règles de physique de mathématiques euh, voilà ay ay règles yi xam règles de base yi xam à chaque stage 10 stages la ko bëgg def à chaque stage da ngay jang da ngay trouver pour mën a jàll Ibou Koumba jazaakumullaahu xayran effectivement sax moom laay mom lay travailler j'ai fait une formation en Python waaw Python je l'ai installé ça machallah allah euh, def ci ay formation yu bëri bëri ba nga xam dafa ma commencé neex yam ma ci ma installé waale PyCharm parce que pour l'écriture n'est-ce pas PyCharm moom laay Python donc tous les programmes et tout j'avais déjà fait JavaScript donc euh, langage moi langage C tous ces langages là mu dem ko jàngi ci ay experts ko donc pour mën taxaw dans le codage macha allah euh, sama sëriñ euh, sama sëriñ lu mu wax ni dafa am solo Ousmane Dieng effectivement donc non le demee je beau. ah mon nom am ci quelques années naa ko pare en tout cas commencé naa te dafa am benn jikko bi xam chaque fois ma ne suñu sëriñ man sama sëriñ mi Mawlana Sidi Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahu donc euh, dafa am benn jikko bu extraordinaire mu amoon lépp lu mu mës a bëgg a def reporté wu ko il a commencé vite parce que report tàmm reporté dafay commencé tayal et lépp lu mu commencé amul jàmm fekk jeexal ko il n'a jamais commencé dara pare bay ko dem def leneen lii mom jikko la yoo xam ne jikko yoo xam ne koo suñu sëriñ donc euh, inshallah je boobu dal je wu xam-xam la woon nag bi nga xam ne ni ki soo validé sooy stage par stage niveau 1 niveau 2 niveau 3 euh, c'est parce que am nga ay xam-xam yi xamné xam euh, par force xam nga ko intégré nga ko des missions yi nga wara def missions yi xamné c'est pour découvrir on va le faire en énigme en puzzle yi nga xamné dafa am xam-xam yooyu dem xami ji xam-xam yooyu moo lay libéré parce que par le savoir qu'on va grandir yéen sa sam sax du neen yàlla njëkk ñu jox nañu iqra n'est-ce pas iqra jàngal li. donc euh, donc vraiment man jàpp naan le jeu est un instrument très très important pour mën a jàngaloo après xale yi loolu après naa si ñëw comment utiliser le jeu pour gars yi jàng donc les programmes ay Python ak yii JavaScript ak mais si dañ ko war a jàngal yi depuis le primaire gars yi doivent commencer à coder ils doivent commencer à programmer parce que ailleurs soo demee ay France ak yeneen dëkk yu bëri nga ils sont déjà en retard parce que avec avec les avec PISA soo les PISA qui évalue le système éducatif mais France dafa tard. France mu ngi ci ils sont en retard n'est-ce pas euh, ils sont en retard donc aujourd'hui euh, ñu tëdd sax xale yi ba si Afrique du Sud mais ñu jël ay xale leen jàngal programmation xale yi commencé defar ay robot boo demee États-Unis xale yu bëri seen kër yi garage papa yi mais c'est des c'est des usines micro usine pour le des des des laboratoires yoo xam ne ils sont en train de faire ba c'est ay xale sax jëm ay fusion nucléaire dans le garage donc xale yi ñu ngi toog di jéem créer ay robots yu ndaw robots élémentaires n'est-ce pas ay kobo ay application de base yoo xam ne application de jeu wala application logicielle yoo xam ne lii defar ko c'est pas diable n'est-ce pas c'est pas diable donc euh, macha allah et euh, Ibra Dieng yow après kon naa la soxla euh, framework Django man je suis preneur donc euh, je suis preneur lépp lu laal programme time moom si dama je suis à fond dans ça dëgg yàlla et donc man dama jàpp ni euh, si je peux le faire c'est parce que presque tout le monde peut le faire temps bu ñuy consacré def si ay si sala ay série yu ñàkk fayda wala ay émissions yu ñàkk solo yu am si télé yi bu gars yi duggoon YouTube y a des tutos ay tutoriels yi nga xam ne on te forme facilement et gratuitement tubaab yi ñoom loolu laa leen nawee te dafay am xam-xam day bëgg gaaw partager xam-xam boobu pour ñëpp xamandoo ko fii kenn dafay xam dara sax su deful nag dafay bañ kenn xam ko dafay soxor su kenn koy waaj a xam sa day mer donc fii gars yi sont pas grands ñu si bëri fii man moo tax jàppe ma ay borom xam-xam c'est des diplômés mais ce sont pas des intellectuels un intellectuel mënul mel noonu donc 5 ans pour le primaire muy ñaata je suis à 8 ans pour que dugg 5 ans il a combien actuellement il a 13 ans 13 ans c'est l'âge des transformations morphologiques euh, euh, biologiques c'est la puberté mooy instant un xam ni ki nag mu ngi commencé mel ni kuy bëgg a bañ je prévois encore 5 ans. 5 ans, c'est tout le lycée. Le collège et le lycée. Le premier cycle et second cycle. Si on a 5 ans. Effectivement, il y a des classes qui sont vraiment moins Le Premier terminal, une classe. Je ne sais pas si en premier, je suis candidat libre. Quatrième et troisième, une classe, sincèrement. Je suis en quatrième, je suis candidat libre. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment beaucoup plus libre. Donc, 5 euh, ans après euh, primaire pour dem bac encore may fatali sur les cinq ans xam primaire primaire le CFE du nekk diplôme c'est pas un examen soxlu examen donc tu passes sur examen parce que CFE amatul solo ni mana ba war ko def examen national wul bu yàgg ba si oui c'était normal parce que CFE c' e, un diplôme bi nga xam ne da nga si doon am liguey mën nga liguey avec le CFE le certificat de fin d'études maanaam CP mais aujourd'hui mais CFE ban concours lay laaj CFE CFE c'est pas un diplôme CFE du dara benn kayit la bi nga xam amul solo donc sax mu nek examen avec ses trois compositions euh, avec deux compositions qu'est-ce que ça dire trois compositions trois trimestres vraiment c'est trop donc avec deux compositions s'il y a une moyenne mais il passe en sixième et puis c'est tout entre en sixième a ko ngandal ko dëgg donc euh, cinq ans pour tout le lycée qu'est-ce qu'on va apprendre là-bas voilà Faut faire ñuy soog a l'histoire. histoire L'histoire, histoire bi jàngal primaire c'est pour xale yi fàtte ko a beaucoup de conscience pour monter cette histoire et dans l'histoire nag on va privilégier suñu histoire bopp ñun duñu jàng adduna bi da ngay xool chez les américains mais américain amul yenn culture nga boo ñu ko jàngal ñu ko jàngal le Sénégal ak le Maroc ak mais duñu la ko jàngal parce que on n'a pas besoin quelqu'un qui va apprendre tous ces pays là dem université dem def géographie la ko war a maîtriser maanaam nit ki da war a maîtriser yaay nag soo ko ouvrir au monde fii c'est le contraire dañuy jàngal dañuy bourrer avec tout ce qui se passe ailleurs fekk xamul sa lu barki dem may wax ay xalé yoroon dem goré Parce leen Gorée nu mu tudd xamuñu ko Le c'est grave déjà baat bi il est hollandais sénégalais yi bu ñu ngi taxaw bi xamuñu loolu pour ñam pour ñoom Gorée bi si wolof la ay goré moy ko am ngor non c'est pas ça goré c'est hollandais c'est les hollandais ñoo tuddee goré les hollandais sont venus à goré vers le 15 vers le 15e siècle avant ñom c'est les portugais ñoo fa ils avaient surnommé l'île Palma n'est-ce pas Palma l'île Palma boobu c'était le 14e siècle donc les Hollandais ba ñu il y a une good rate il y a y a y a un bon port de ko Gorée Hoofdvlakte donc pourtant il bi balaa ñoon ñëpp les wolof ñoo fa jiitu c'est pas vrai que toi, yi ñoo créé ñoo ko découvrir wolof yaa fa nekkoon île bi mu ngi tuddoon Béer waaw Béer ah Moham Mbow jazakumullahu xeyran et suñu histoire fii tout proche Il y a beaucoup de choses yoo xam ne ba si île des Madeleines de am tur tout le Madeleine il est Madeleine ay toi, ko de noonu il est la Madeleine c'est pas c'est pas son nom donc on a des choses tout proches yoo xam c'est propre histoire donc histoire comme pour nous dans le lycée on doit faire un focus sur notre histoire euh, Et on et on yem histoire le programme euh, on va apprendre la philosophie on va apprendre la science beaucoup de science la technologie ndax lii le monde de demain dañ ko war xam donc amatul ay L L2 c'est pas important loolu c'est pas important ce sera important pour les deux dernières années mais il y a un tronc commun bi xam ne on va faire beaucoup de sciences. parce que la science buñ la ko jàngalé ni la ko wara jàngalé jàngalee koy xam maîtriser ko quand y a des profs nuls dafay tax prof booy bañ matière yi quand daño ñàngal affaire yi dans des langues presque impossible dafay tax booy def aucun effort li c'est des syndromes yoo xam mais syndrome yu grave la am lu ñuy l'impuissance apprise xam naa ko su vous connaissez ce syndrome là

Euh, voilà war nañ kon gën a liggéey si comment on appelle ça, qui euh, effet effet Pygmalion effet Pygmalion donc euh, effet Pygmalion donc on doit suñ la gëmloowee suñ la mais préparé du def am solo du def par rapport à à l'effet Pygmalion nga ñu ñi xam dañ ci parce que l'effet Pygmalion euh, s'oppose à l'effet Golem Il y des tests yu sont faits def ay xale a dañ leen gëmloon da ngeen garaaw bokku leen ci yéen a yéen ko mën def xale yi mujjee gëm ñoom mënuñ def et et donc liñ ko psychologiquement pour lu à joué ci n'est-ce pas ak ci donc, euh, on a des nullards qui enseignent. Quand un nullard enseigne, nous former crack. C'est une réalité. Un nullard ne forme jamais crack. C'est une, une formule, c'est une constante de l'univers. <laughs> Donc, effet pygmalion, effet golem, c'est des effets qui sont connus en, en, en, psychologie. Donc, on doit vraiment faire très attention à ce qu'on dit à ce qu'on dit à ce qu'on de mettre en contact, à ce qu'on dit avec nous. Puis, les profs, qui s'adressent à deux, trois personnes dans la classe, parce que les Japonais, ils sont bien, ils me comprennent, ils écoutent. Ils euh, Je ne vais pas me faire un focus sur ces jeunes-là, ce qui n'est pas normal. Dans les écoles sérieuses, ils commencé à euh, l'enseignant prend en, en charge tout le monde. Donc, au contraire, les faibles sont ñoo gën a ñoo gën que ceux yi conçoit comme étant un ndaanaan donc euh, Ousmane Dien tu entièrement raison cette école là forme des nullards ils ont échappé à cette nullardise là ils se sont reformés après cette école là cette école là est une catastrophe donc école bi Père war na euh, beaucoup de sciences. après war na allégé. alléger et dans toutes les langues man vraiment soo ma le problème scientifique yu bëri gars de poser, posé xale dafa que ça soit en trigo que ça soit en en tout mais problème bi su la ko expliqué ci ça. sa làkk sax nga gis lii yéemewul quelqu'un bu mosul jàng école mosul multiplication wala dara sax boo ko nee su la joxee ñetti yoon téeméer ñaata yaa ngi lay ne eh 1500 lay donc les fam c'est minimum quoi lii soxlul intelligence donc c'est logique et c'est normal donc on doit faire de la science donc de la science muy deux on doit enseigner à yi culture de la confiance en soi par le développement personnel Il faut être au programme pour le lycée n'est-ce pas programme lycée développement personnel et spirituel xale bi xam kan bi il il est exceptionnel effectivement il est exceptionnel fii est ils sont exceptionnels ay intégral Il yi nga papa est xam nga gis ay booyee xamé ñu ñëpp def ko ñëpp jaar nañ si def ay ay intégral def ay suite yu métti di calculer di calculer yu bëri yoo utilisation réellement xamuñ ko pourtant bu ñu bu ñu boole woon jàngal ñooñu programmation ak langage machine gars yi découvrir defar ay logiciel yu extraordinaire wax dëgg yàlla logiciel yu extraordinaire parce que on va traduire que ces connaissances mathématiques là technologiquement dans la pratique dans la pratique la technologie nekk benn benn application Euh, des maths et des physiques euh, sur la technique donc juste loolu kese la donc ñee di créer ñoom dañoo dañoo dañoo mën mathématique ak physique ñun fii dañoo xam dañuy xamal mathématique ak physique kon kuy jàng mathématique ak kuy def mathématique ñoom ñaar duñu benn donc aujourd'hui kon le développement personnel doit être une dafa war a nekk partie intégrante très importante Euh, sur le cursus du lycée dañ ko war a jàngal yi c'est parce que développement personnel loolu mooy mën a andi esprit d'entrepreneuriat moy mooy andi nit ki mën autonome une autonomie moy mën andi beaucoup de choses sang maa sang sànq tudo sang école bu ñu wax Sud Boy Valley School école bobu xalé yu bari fa la jangé entrepreneuriat parce qu'on te laisse autonome ngay def la neex ngay def li nga passionné kese ngay def parce qu'on te dañuy xol la moy sa passion ngay son sa passion li ci son ni xamné a ah kon kii de ma sha allah ki jambar wala ki nangam pour dire que c'est très important, euh, laissons les enfants suivre leur passion, pour les forcer à faire. Donc, le développement personnel est très important. Euh, mais des valeurs, système de valeurs, des valeurs civiques, des valeurs citoyennes, des valeurs patriotiques, des valeurs morales, des valeurs religieuses. Le corpus bi, des valeurs top xalé ba nu paré. Donc ba nu Oui, euh, Marifa, à la lecture rapide, oui, c'est une obligation. Il y a, il y a avoir des cours de lecture. On ne peut pas dire à des enfants, il faut lire. comment lire il y a des techniques aujourd'hui de lecture il y a même des championnats de lecture dans le monde un Sénégal nous bëri de donc lire un livre devoir nekk passionnant le rapide donc euh, le rapide on doit avoir des têtes bien faites pas des têtes pleines pleines les djangles, man il faut fa temps de ñu temps euh, CM ça veut dire programme de on avait des dizaines des cinquantaines de leçons la Russie la Chine le Japon du Meiji la guerre de sécession le xaw mais ça nous, jàngal jungle, yi nga man en troisième xam naa bu baax baax le Japon du Meiji la guerre de sécession le monde de nangam la Russie euh, la révolution bolchevique etc. la bataille de Danki c'est fii au Sénégal en 1549 bi nga xam ne moo réglé moo dindi l'empire ba créé lamaan yi jël seen l'indépendance. indépendance parce qu'on l'a brossé au primaire on a tout fait le système actuel fait que nous ñuy des choses 4e 3e pour nous faire ko bëgguñ ñu fàttaliku suñu histoire ils ne veulent pas parce que ki créé programme non non, nous suñu avancement la ak suñu éveil bëggul woon ñuy bëggul donc quand on enseigne un enfant de 7 ans 8 ans 9 ans nous koy jàngal ay figures historiques c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils les seulement la vérité ñu avons ko mu puberté 15 euh, ans 16 ans 17 ans li koy soog a les figures historiques parce que ku marqué marqué au fer à tout jamais donc euh, c'est très important ñu bàyyi ci xel donc euh, sama me yi nag les programmeurs ñu ngi ci biir lire leen commentaire ñoom Pape Ibra Dieng ñu ngi fi ñoom Iba Kumba nous ñëpp ngi fi les gars yi ñu gars sont en train de partager des cours comment faire des cours en programmation Nous ko soxla nañ dugg si biir live bi sinon man après partager partager des vidéos sur ma page euh, apprenons apprenons à parler les les langues de notre siècle et notre siècle siècle technologique siècle numérique siècle informatique on ne peut pas ignorer les langages, la programmation, le codage, vraiment, on ne peut pas l'ignorer. Quoi ignorer, un alphabet. tu es un alphabet, Donc je le répète, je le répéterai jamais assez. Donc, tu es Donc, euh, Masha'Allah, euh, tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Donc aujourd'hui, c'est des réalités, nous pouvons ignorer pour mën a doxal li ñu bëgg ma ne leen euh, aujourd'hui gars yi ñu ngi liggéey ñoom ci affaire informatique Python langage programmation maa ngi koy wax sànq léegi donc euh, mais la euh, machine learning bi mais yëpp c'est ay jumtukaay la donc jumtukaay la donc data science data science data science big data gis des opportunités c'est des opportunités scripting ak automatisation bi nga xam ne duñ ko mën a am ci loolu mais dafa am solo aujourd'hui on est en train de dire que euh, le test de Turing, n'est-ce pas euh, Le test de Turing. Mais test le bien, mais Turing l'a fait. Turing, je n'ai même pas l'énoncé. Donc, je n'ai même pas parlé de son nom, mais c'est un des pères aujourd'hui de l'informatique actuelle. Donc, euh, mais Turing, test un bon, nous avons dit que nous avons avant 2030, mais les machines vont réussir ce test. Donc, nous testons. Euh, testons une personne qui parle à une machine ak à une personne en même temps euh, machine bi am ben autonomie ak ben intelligence bi xam du mën rendre compte mu ngi wax ak machine du xam kan moo ci machine si ñoom ñaar machine bu eggee fofu mooy ka am na benn autonomie kon jox ñu ko ben forme d' intelligence bi xam ne wax dëgg yàlla euh, macha allah euh, Amina Samb man je man di nga ma def une ma ma je vais me confesser ba terminal lire ma ben livre je n'ai lu aucun livre ce livre yooyu

mais foofu amul PC amul techno te man je voulais je voulais scientifique jàngeewu ma fa mu jàll ma dem ba CMA dama jàll nga xam ne mu wetu karak parce que foofu am na bloc amoon na PC amoon na techno pour dire que dama tere identifier laa bëgg def donc mais euh, liiruma livre yooyu te te wàññu ma dara li gën a grave c'est après avoir fait le bac après dépasser école la soog de jël yenn livres je les ai lus pour mën xam qu'est-ce qui s'est passé l'aventure ambiguë ñoom suñu jata je les ai lus après terminale liiruma ko pour am note dama ko liiroon pour xam moo tax ba léegi maa ngi donc ça ça nous renvoie encore ça revient sur la passion soo bëggee dara defal ko sa bopp sans contrainte daf lay jariñ da nga koy xam buñ la forcer dara nag euh, c'est rare en tout cas mu amal la jariñ donc le test de Turing sera battu avant 2030 déjà lii benn ouverture bu extraordinaire la sur euh, la robotique sur les kobo le mot les kobo donc métier ou centre d'appel opérateur téléphonique mais quand les mu on n'aura plus besoin de personne pour dire et produits répondre à quelqu'un qui appelle qui a des préoccupations etc. mais ce métier là va disparaître il y a de tout. qui s'est c'est opérateur formation sax gars yi formation en télécom, marketing télé opérateur mais ils ils n'ont pas compris ni la la qui est en train de s'opérer actuellement donc euh, on est en train de travailler aujourd'hui sur ces logiciels là on travaille sur des variables sur des codes sur des corridors sur des algorithmes pour d'autres informations xam nga algorithme euh, al khawarizmi c'est un arabe c'est un musulman dis là, Mohamed ibn Moussa al khawarizmi on moins le père des algorithmes mais aujourd'hui adduna bi quelqu'un bi nga Il ne xamul pas concevoir l'algorithme. mais il n'aura pas une vie facilitée parce que n'y bi pas d'algorithme. Mais la sax chaque fois nous fonçons vers vers ce qu'on appelle une algocratie donc un pouvoir qui sera déterminé et détenu par des algorithmes attention donc il dit ko war a dañ ko de a dañ ko war a xam dañ ko war a xamal si ay ko bokk si si vingt et siècle bi ñi nga xam ne ñoo war a qui ndax na de

zol mu ne bayésien euh, bon le bayésien gars yi moom ay théorème de Bayes yooyu gars yi xam nañ ko gars yi statistique ak mathématique xam la laay wax donc les arbres de décision donc pour def prédictibilité le clustering mais il y a des algo yi nga xam ne nit dañ ko war a jàng xam ko on n'est pas tenu d'être informaticien pour xam donc on doit dañoo war a décloisonner suñu ay compétences on doit faire exploser nos savoirs wala ñu yem ci man lii laa li moom a intéressé leen sama yoon nekk si non le monde bi ñu jëm marché wul euh, il faut d'abord nous ni, il bannir loolu suñu ay c'est pas normal et c'est pas sérieux ah, je le répète sans cesse euh, on est vers la pluridisciplinarité donc algorithme même petit Facebook il utiliser Facebook mais algorithme donc euh, timeline algo y a beaucoup d'algo qui utilisent utiliser instant yëpp algo yëpp algorithme donc PageRank Google Robin, donc extra, round robin semaine round robin mais il y a beaucoup d'algo yi xamé wax deug yalla c'est pas diable un élève primaire il ko jangal Pape merci beaucoup ci ci ci ci wax deug yalla merci merci beaucoup donc ce euh, vie li nga tamé sa pourtant algorithme la de ñoo xamul rek togg algorithme pour les femmes donc euh, c'est un ensemble de trucs rek un ensemble de tâches bien ordonnées et bien finies euh, enchaînées suivant un ordre pour atteindre un objectif pour avoir un résultat mais n'est pas extraordinaire c'est que moo tax il nous faut ñu dem ba au fond euh, école bi pour lan la ak lan lan lay jëriñ léegi nag damay permettre ma fàttali la règle des des des trois tiers bi nga xam ne moo amoon chez les Grecs cette règle là disait que ñu ngi am temps bi nga temps la pour jàng pour moom temps la bi nga pour accompagner son maître pour dem gëstu jël ci mom ak temps bi nga pour ne dafa jàngal keneen pour contrôler à qui mu am actuellement ça rare il y a des écoles qui sont en train de le faire il y a des écoles qui sont en train de le créer donc euh, des écoles qui sont en train d'être créées Il y yi nga xam de dafay bàyyi xel C'est une solidarité et une coopération intergénérationnelle ngay jàng ñu contrôler sa jàng nga jàngal keneen di amna na jeexit muy def ci jang euh li ma sank nak ci 13 ans dafay andalé ak ñak vacances xalé warul vacances donc sama vision ci wàllu boobu mooy trésans yi waru am vacances dafa am ay mission d'ordre civil et citoyen, ay ay ay immersion ay excursion ay camp de vacances yi xam état mo koy organiser pour élèves yépp ñu ay vacances ñu am waruñu toog di xoole y a des travaux d'intérêt général ñu wara def il y a des découvertes dans les régions il y a un tourisme intérieur qui a commencé à faire ba avant terminal parce que il connaît sa région il maîtrise aussi bien la géographie euh, que les localités dans le réel il connaît les opportunités les possibilités xam les réalités donc ils vont vraiment tourner tourner euh, nous di am comme ni koy tant temps ou c'est pas comme un jeune étudiant qui a dugg ci institut privé ñi koy affecté yow mi telle année année telle région ngay dem ñi avec les IA avec les IEF ñi koy piloter di donc te lii mooy suñu formation yàgg formation formation DAR euh, mooy génne confort familial pour def ci la donc a ci cursus scolaire bi 13 ans je n'ai pas fait de double, je n'ai pas fait de double. Donc, l'école, c'est une école, nous devons la faire en soi, nous l'attrayons, euh, nous nous captons attention, nous avons une passion pour les enfants, nous devons la faire en double. Notre sache, c'est important, notre. Donc, c'est euh, important. Ah oui, à bout ça m'a permis de bonner, je veux dire, 5 ans de double école, 3 ans préscolaire 5 ans primaire, 5 ans secondaire, 13 ans, 18 ans juste boo à mes directement dans armée formation militaire bi parachever ses acquis et ses connaissances elle devient obligatoire elle parachève les acquis elle parachève les les les compréhensions euh, elle renforce le patriotisme la relation de respect vis-à-vis de ses prochains vis-à-vis de son pays vis-à-vis de ses institutions vis-à-vis de sa ay kilifa lii yëpp dañ mais dans une formation de un an donc euh, selon le jeexee à 19 ans am nga droit dem jàng lépp dans le supérieur donc que euh, c'est gratuit donc mom euh, entre parenthèses daf may may dafa mayoon rek possibilité ma meuna a laal loolu balaa ñuy mën parce que may ragal ni suñu éducation bi war ci defaat benn deuxième partie ndax actuellement mu ngi a euh, mu ngi gën a guddi te ko gëna a yaatal en termes de solution pratique comment le faire et surtout en une évaluation par rapport à la démographie ndax on connaît les chiffres actuellement chiffres ñu am lii pour le faire ñaata euh lañu euh, budget pour c'est obligatoire service à la communauté durant tout le scolaire du du secondaire secondaire parce que il n'a que 13 ans euh, mais sur les 5 ans le lycée collège euh, c'est services à la communauté avec des sorties à chaque vacance maanaam amul amul arrêt amul taxaw toog ni ay 3 mois di taal ay tànk di xoolee di ay nawetaan di ñàkk fayda ay di xool ay Paulus Cheikh loolu mënul xam ne ñu ngi waajal ay xale demal xool Corée xool Corée ñuy jàngee donc euh, demal xool Singapour Hong Kong demal xool nu gars yi di jàngee donc jàng bu extraordinaire euh, jàng bu extraordinaire bi xam ne no stop xale yi di claqué donc man sax waxuma ñu claqué loo suñu boy mais leen jàng loolu l' essentiel ba pare libéré leen avec un man dama gëm. le jeu comme un élément euh, de socialisation déjà, comme un élément d'apprentissage. On apprend par le jeu. Ce n'est pas, pour, pas pour rien ça que le jeu a été un élément de pacification des relations. Dans la Grèce antique, les jeux, les jeux, les JO, les Olympiades, donc les jeux de cirque, les jeux de cirque, c'est différent, c'est un autre cadre avec les Romains. Mais c'est que le jeu dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup. Fils du train de se moi, je respecte pour les valeurs donc euh, mais ceddo euh, ils avaient ci ay ci beaucoup choses le jeu est important pour inculquer valeurs donc euh, voilà un groupe. li dama mais c'est des réalités de l'école la réforme la première réforme refondation totalement changé école dans le monde entier donc premier step pour donc waaw euh, xam nga on parle sànq maa ngi wax sànq bu tuddu euh, Bruce Campbell par rapport aux échecs yu bëri yi xam ne quatre-vingt pour cent mën nañu ko éche mën nañu ko éviter euh, bu doon bu doon jël nañu en compte yeneen forme d'intelligence yi xam ne l'école actuelle les ignore maa ngi gis léegi ñoom ñoom ñu sax ñoom sës rek ñii moom ak ñoom jàlloo Cerno Euh, les, les, la euh, hip-hop. Mais le hip-hop est un vecteur, c'est très important. Donc, euh, très important. ñu war a use dans sa dans ses principes principe moom ce ce de teacher inculqué na ma ko jàngal na ma donc euh, hip ak hop donc les mon beneen débat la bien bi nga xam ne fi duggee léegi gars yi ça ma eh saa yi léegi rappeur là. rappeur laa woon donc euh, il y a de de de des penseurs yoo xam déjà teg les bases d'une réflexion autour de l'école du futur. Maintenant, je suis Ken Robinson. il a il a attiré l'attention pour dire qu'il comprendre euh, euh, que l'école actuelle est le résultat de la révolution industrielle et qu'elle ne correspond plus au monde d'aujourd'hui ni le 21e siècle ni le 22e siècle école est bien, dañ ko pour créer belle école euh, il n'a pas tort il a écrit sur ça il a beaucoup produit voilà en dehors de lui euh, Simon Sinek nous invite à la question du pourquoi. question la laa laalagul instant la ko ci biir live bi la ko laal si suite bi parce que suñu nekkee di forcer xale l'école yóbbu école ñëpp di wax école école wala yóbbu école naan école obligatoire mais dañoo war xam école pourquoi pourquoi ñu war dem école pourquoi ñu war dem école donc euh, école bañ na ko ba ñu bëri wax y a trois fonctions qui xam moom la école doon la école doon la première euh, c'est le nivellement sociétal comment la ñu mën a niveler ñëpp am benn même type de personne partout wala bokk la préparation des citoyens dafa war a préparer citoyen bi ñu soxla suba dans ce cadre là kon école warul fonctionner mel ni actuellement parce que lii formé benn benn citoyen bu bëgg dëkkam li ñuy jàngal bitim réew sax moo ñuy jàng suñu waa dëkk dafay tax ni waa bitim réew lu ñuy gën a bëgg sax suñu waa dëkk su xale yi jógee jël ay gaal wala xale yi gëm ne ñoom kaaw yor dem mais ñun war ñu jaaxle c'est l'école qui a qui a donné parce que lay jàngal kaaw la jàngal kaaw ba di la wan kaaw ba di la jàngal histoire kaaw ba di la wax héros kaaw ba télé itam ñu la wan filmu kaaw ba di la wan sonwu kaaw ba di la wan sportu kaaw ba mais naka la xale bi def ba du bëgg kaaw ba xale yi ñoo war a bëgg kaaw ba c'est très normal c'est très normal c'est le système d'ensemble euh, éducatif et même médiatique moo travaille loolu sur la conscience de ces jeunes là donc euh, lii moom wax dëgg yàlla dañu war a xoolaat une approche du jeu et des technologies numériques dans l'école. Je li enseigné aussi la fondation parce que l'école, may gis bu ma dans dix ans école boobu instant yi basé sur sax tel actuellement Alvarez elle a fait un TEDx donc euh, Cyril Alvarez elle fait un très bon travail qui récupère les les les sous niveaux de l'enseignement. Elle mu récupérer euh, avec ces techniques de laisser aller de laisser faire de responsabilisation des enfants Et xale de un surniveau ils ont mieux appris que nous, dans l'école classique conventionnelle qui elle a elle a fait un merveilleux travail donc euh, beaucoup de batailles avec les types Montessori on aura l'occasion d'en parler l'école Montessori On a vu à Dakar ça, a été fait donc euh, Mathieu Peterson Peterson Mathieu Peterson a montré que les maths euh, vraiment il a fait un travail il chiffre chiffre dafa pas sax bañ ko chalet, ba âge euh, Louis Paul Benezet euh, a fait ce étude là aux États-Unis Amérique donc si yenn yi au âge yi bañ a la théorie ils ont été appelés plus excellents en mathématiques que les yi qui a commencé def mathématiques depuis 5 ans donc fii commencé arithmétique bëgg son gars arithmétique donc pour man moo tax ma ne sànq au primaire man au jarul lii jarul dara dañ xool ñu jàngal étape préscolaire jarul jàngal calcul ni lire ni dara parce que waruñu bëggee esprit xale bi dañ ko war préserver donc euh, le jeu nag pour man est très important et ça me permettra après de parler de la refondation de l'école qu'on veut xam nga ni euh, même en médecine li wax la chirurgie la chirurgie laparoscopique euh, des consortiums ont travaillé sur des jeux pour des chirurgiens et médecins et qu'à travers ce jeu là ils ont été plus performants cette opération bi xam bon opération de viscère l'opération euh, opération de bu prise la opération de tout on a trouvé que des médecins qui jouaient jeu ils ont été plus performants et ils ont d'accord opérer qu'un médecin médecins ne ils peuvent pas euh, ils n'ont pas joué

jaraaf jaraaf a ngi fi sax jaraaf xam na gars yi ñoom dung ñoom dungaa ah non gars yi dañoo dem Italie ba xam koñu Italie yëpp te fekk demaguñu woon xam naa tam ñeen ñi xam fii tamit dañoo xam koñu France yi bay wax ak accent yi xam ay 9 2 9 1 9 3 Nanterre di expliquer di commencer di di argoté wax dëgg yàlla te kaaw gars yi bëgg nañ yi fii mu gars xam ne ñoom kaaw ba su fa demul woon dañu la doon dee heureusement sax ñu dem. donc euh, heureusement donc pour dire que rek euh, y a des réalités hein, aujourd'hui euh, qui sont pris en compte qui sont pris en compte et aujourd'hui le système bi ñu dans la refondation ce système bi qui doit être basé sur la sur la coopération sur l'ouverture sur la prospection et sur l'enseignement mutuel donc il faut intégrer dans l'école dans qu'on doit créer Du euh, les les quatre composantes clés les composantes clés il y par rapport au niveau ñu bëgg doxal muy avoir l'attention des jeunes avoir leur engagement avoir des retours d'informations immédiats. L'école doit école dafa la a retours d'informations immédiats. immédiat lii lay après ñu consolider après rectifier sans cela après nous allons automatiser les connaissances donc lii vraiment euh, bi wax livre bon si le temps me le permet euh, on fera un livre sur la réformer ou refonder l'éducation euh, le cas du Sénégal avec des statistiques pour mon a euh, étape par étape comment le faire et en budget comment le mettre en œuvre c'est pour moi c'est très important Nous allons a xel donc l'école donc pi il muy jàngal gars yi muy ay ak euh, qui connaît pi personne ne connaît pi donc on a des approches de pi parce que pi chiffre bi xam on dañ ko jël rek limiter ko l'école noonu lay def elle essaie de limiter les choses elle essaie de limiter euh, des réalités très complexes mu jël ko jëm ko limiter donc euh, machallah mais l'école l'école mission de base actuellement elle ne le remplit plus donc ñi euh, d'accord jàngale les plus éminents professeurs de l'histoire de l'humanité nous yoon à l'islam nous alayhi salaam yoon ci si jàngale la nekkoon chaque instant fu mu mu par des allégories par des métaphores par des paraboles par le message par des conseils mais jàngalekat kat yoon ci yàlla Isa jafe na si jamono ci jàngale ba amul kër amul négo fam di dox chaque instant di jàngale donc nous euh, Bouddha voilà tes grands ñoom Confucius yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngalekat bu mag bi donc mais il n'avait pas une relation euh, verticale avec tout le monde non c'était une relation horizontale Ken ku nekk ak niveau am loolu forcé wuñu ñëpp benn ben kese bi bien ne ñëpp ñu loolu jàngandoo non c'est des assemblées yoo xam a un niveau supérieur qui a un niveau moyen qui a un niveau très élémentaire kenn ku si nekk mi wax yow suivant ce niveau lan la yonent daf ko jàngale ne xaatibu naas ala qadri wax leen doomu aadama yi kéem seen xel fi mu toll waaye yamee tamit yenn ay échange inter étudiant yoo xam ne ñu tolloowul niveau ñu doon laayante biir donc ñu doon dimbalante donc euh, y a des valeurs de l'école ancienne qui avait produit des gens sages valeurs yooyu fait ko fàtte nekk dans la production de masse dans la production euh, industrielle donc euh, waaw Papa si pi n'est pas égal à soo waxee 14 yaa ngi minimiser lu bëri bëri ab aspect yu gën a am solo la jaabul et dans le détail euh, aspect yooyu jëloo ko en compte ci biir euh, ci biir ci biir résultat bi ma jox c'est comme quand je demande la constante la constante de Champernoun constante de Champernoun euh, quand quelqu'un me dit égal 1 virgule combien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et il n'a pas trouvé

Euh, goudou donc après on va faire un numéro 2 pour parler de refondation actuellement on parle de que euh, de de de réforme de réforme de l'éducation donc euh, bi nga xam ne wax voilà après on va parler d'écologie on va beaucoup parler d'écologie parce que l'école du futur l'école école boobu mënul a wax écologie les centres d'école là école du bëri mënul continuer day donc pas chaque xale xëy matin téye ay sac dem lolu fi ba cent ans loolu du am donc euh, déjà ñu commencé di dématérialiser école ak bureau yi di wax gars ay très télétravail pour gars tok toog seen kër yi euh, on est en train déjà de commencer à donner les les germes ak les bases la suite de demain suite bi bien des choses se feront à la maison donc et cetera et cetera donc jang mom vraiment le temps moom bu ñuy defee expérience ci jang yu si bëri 2h14 waaw c'est beaucoup c'est beaucoup donc euh, j'aurai l'occasion donc après quand on va parler de refondation, de parler euh, de l'économie bleue et de l'économie euh, circulaire. Parce que le paradigme sur lequel on a construit cette école-là est un paradigme purement libéral. Il est ultra-libéral. Paradigme de concurrence, paradigme de, euh, comment de compétition, paradigme de... de C'est un paradigme eugéniste les meilleurs doivent passer, les moins meilleurs, alors que nul n'est moins meilleur. On est tous intelligents. Nous sommes tous à des degrés différents avec des formes d'intelligence variées. Avec des intelligence émotionnelle, des intelligence logique, des intelligence, euh, euh, je veux dire, artistique, littéraire. Quelle intelligence mais on a beaucoup d'intelligence euh, en nous. Quelle connaît les qui stimulé, mais nous sommes tous intelligents. Il n'y a pas un enfant non intelligent. Ah bon, ça ne pas. Il y a la Donc le système actuel est faux parce qu'il est basé sur une fausseté. Donc euh, les, les, les, paradigmes actuels, les paradigmes, vraiment, euh, les, les systèmes économiques, les systèmes économiques alternatifs. Je prends l'exemple de l'économie bleue et de l'économie circulaire. Aujourd'hui, tout le corona, y a un problème. Le problème d'oxygène, là, des gars,

li amon, bu c'était de l'azote et de beaucoup de dioxyde de carbone n'est-ce pas dioxyde de carbone boobu nag euh, macha allah CO2 ce qu'on appelle la grande oxygénation euh, dafa am ay bactéries def ci ils s'appellent les cyanobactéries ils ont rejeté euh, de l'oxygène mu am ñu koy ñu de côté, de côté, di quand les cyanobactéries ont été saturées ils euh, commencé à oxygène l'oxygène muy dans l'atmosphère à accumuler donc vous la couleur de notre planète le bleu le le et même cette biodiversité là avec les produits qui c'était un déchet qui n'a pas été récupéré ni transformé donc le déchet n'est pas mauvais en soi chaque déchet est une opportunité. Donc, euh, chaque déchet est une opportunité euh, pour des perspectives, pour ceux qui savent. Donc, euh, le modèle actuel, c'est déchet, c'est à éliminer, c'est à nangam. Non, la nature, aduna bi ci raisonnez vous non garab bu ay xobam daano xop yu wow dem ba wow amatul ci garab bi daano, Donc, ça s'appelle pas déchet ça entre dans un nouveau dans une phase bu ci ci bir bi dafa wara enrichir le sol euh, dafa faut a ngir euh, yi euh, participer ci ay nutriments matière organique bi y' a qu'un seul déchet dans ce pays il s'appelle a qu'un seul déchet donc voilà chaque fois que que nous permet de de récupérer et de, réutiliser un déchet, nous sommes dans une économie verte, nous sommes dans une économie bleue, nous sommes dans une économie circulaire, une économie consciente. On voit l'économie de la nature, là, Donc, euh, mais donc, le paradigme, kon, nous base basé l'école au XVIIe siècle, le paradigme est instant li wóonoon dafa actuellement. Donc, l'école ne peut pas continuer à fonctionner comme nous devons fonctionner pour ko créer. Avec l'objectif que de former des dof qui servir un État. Euh, un état totalitaire etc. etc. donc pour dire que euh, vraiment il faut ñu euh, il faut l'école actuelle donc ce sera soit l'épanouissement ou la productivité l'école industrielle est basée sur la productivité elle travaille pour un PIB le produit intérieur brut l'école la nature bi mon actuellement elle travaille sur l'épanouissement d'abord. L'être, c'est sera épanoui. Et on la comptabilise avec le BIB, le bonheur intérieur brut. Donc, euh, vraiment, euh, peut-être on a un peu goûté de nous, mais bref, après on va. Donc, se 4 Waouh, Gunther Polyum, il est excellent. Je vous le conseille vivement, lire Gunther Poli. Donc, il est exceptionnel. Euh, il fait des choses merveilleuses.

système boobu am cesluwaay bi nga xam ne cesluwaay boobu yàlla ay kese la maanaam yàlla la donc euh, bu tegul ci yàlla rek dafay nekk leneen donc àdduna lay nekk te mbiru àdduna dafa am limite dafa am limite donc euh, yàlla am c'est le sommet hmm? ilallaahi walallaahi muntaha waaw ah, yàlla c'est le sommet yàlla na yàlla defal tawfiix yàlla def ñu dëgg dëgg julit yàlla yombalal ñu lépp ba lépp lu ñu namm euh, lépp li nga xam ne wareef la yàlla teg ko gall ko suñu ay mbagg donc euh, ñu mën ko assumer euh, haut la ndax dafa am ay défis yu nga yoo xam ne ñun jullit nii surtout ñun noir yi dañ ko relever àdduna ndax euh, àdduna nit fi ñuul nii ak jullit nii man jàpp naa ñooy actuellement ñi gën a doyadil te ñoom ñooy ñi war a relever haut ñuy wax torche bi nga xam ne mooy torche humanité daañu ci yàlla dimbali defal ñu si tawfiix yàlla may ñu éveil

mooy sama sëriñ donc maarifa ñaanal lii ma mën si def benn benn bind euh, su ma ko jot bi mayee su ma paree yi may bind nii instant donc euh, euh, ramali ramali yow wàllu yàlla nga moo tax yàlla war la mbiru Macky donc Macky moom vraiment musiba la yàlla na yàlla musal ci variant bi tudd Macky ndax mooy variant bi gën a dangereux ci corona bi donc ziar nañ ñëpp bégg nañ leen yàlla na yàlla defal tawfiq incha allah yàlla defal ñu jàmm Euh, defal ñu yiw euh, sànq je voulais vous parler euh, bëggoon naa beaucoup DeepMind ñu wax DeepMind avec AlphaFold donc nu ñu defee ñu wax Human Proteome maanaam benn fichier zip de près de 50 gigaoctets bi nga xam les protéines yëpp machine def na machine def na ko maanaam cartographie toutes les protéines de l'être humain donc lii vraiment Euh, macha allah human protein zip boobu euh, pour dire que la science mu dox dox jéego yu rëy yu doy waar yi xam ne euh, ñu jéego yow lañ ko bàyyi xel ndax ñu tam dañoo war a bokk suñu war a doxal science waaw ah, donc yàlla na si yàlla dimbali may ñu ay ndaw yi xam ndaw yu joué seen rôle la ci incha allah rabbi donc Ibou Koumba Gueye <laughs> doyen doyen billaay le virus là qui est là au palais mënoo dëgg ak moom pare pare di ba pare di cool loolu di aimable vraiment je veux bien le faire mais je n'y parviens pas parce que ce virus là il est il est dégueulasse il est juste dégueulasse donc euh, je ne l'aime pas du tout wax dëgg yàlla euh, Nasir Lo Nasir Lo ñu lay ziar bu donc gars yi kon euh, bon c'est le dimanche déjà Cette semaine bi on aura le temps libre de revenir pour y égaler tax sax éducation parce que on a on parle juste d'instruction et d'apprentissage donc euh, l'éducation incha allah on va en parler euh, incha allah rabbi euh, yàlla na yàlla defal tawféex Abdou Amadou Sow waaw incha allah maa ngi ciy bàyyi xel waaw dinaa ci bàyyi xel Kumba Ndi et eh, Kumba Ndi jazakumullah xel jërëjëf donc nuyu naa ñëpp nag leen bëggi donc di beral nuyoo nag la alaaji Is Donde donc sama waa ji donc di ko jaajëfal di ko ndokkeel di ko ñaanal donc yàlla na yàlla yombal lépp ci barke Mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah donc euh, euh, bëgg naa ñëpp bàyyi paplo dormir musiba la bu leen nelaw guddi nelaw baaxul waaw nelaw day wàññi day wàññi ay fan waaw pour le corona nag waaw ne bëggoon wax waxu saa waa ji bàyyi ma noppi corona bi nañ ci ñëwaat incha allah par rapport ak vaccin yi mm, c'est promis donc yàlla na yàlla defal tawfiix donc asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.